ahousubillah samil alim albaaxil xadim mina sheytaan rajim mbokk jullit yi bokk taalibe yi comme ni ko baaxoo amale ci waxtu yu mel nii fii ci maktabatu Cheikhoul Khadim daaray kaamil tey di ñeenti fan ci weeru koor tombeek ñetteelu jotaay bi di ñëw ci seen waxtaanu am solo muy réalité et perspective de la jeunesse de Touba tawi Touba seen tolluwaay jamono ji ak seen ëllëg ñu ci ànd ak kuñ mën ci jotaay yu mel nii muy sëñ Fallou Bousso Assane ki mu fegool mu war ko modèle jotaay bi mooy Oustaz Góor Ka te mbokk ci commission bi taxawee liggéey bi fii xam naa dañuy profité rek pour jëkkanteeg waxtu yi jox suñu Oustaz kon suñu Oustaz bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi di shahru ramadan al mubarak di ñaan sunu boroom subhaanahu wa mu nangul ñu ko nangul ñu sunuy jaamu yàlla mboolem yi ñu ci def sunuy koor ak sunuy julli te may ñu ñu fekke war koy at yu bare bare ci biir activité yi nga xam ne commission culturelle bi nekk ci maktabul Cheikh al Xadim mu ngi koy def ci biir weeru koor bi muy ay waxtaan waaye tamit di ay génie euh, en herbe ngir dundalee ko weer wu tedd bii nii ci li ñëwee ak yéen tey ci beneen jataay boo xam ne ñu ngi ciy ànd ak euh, sunu ustaas bu màgg bi suñu ustaas bu sell bi di al mudir alxaaji Fàllu Buso Xasan di ku ñu xam ci wàll wi rawatina fii ci dëkk bi ci ay gëstoom ci xam-xamam bu rafet waaye tamit ci joxin wi nga koy joxe muy joxin bu sell ñu war ànd ak moom i tamit ci thème bu am solo di thème boo xamante ne mi dafay laal Euh, benn partie bu am solo ci ab société benn parti bu am solo ci am réew nga xam ne mën nañ ne euh, mën nañu ne am réew mënees na ko natt ci parti boobu ndax am na sunu benn kilifa bu doon daan wax naan wax ma ban ndaw nga am ban jeunesse nga am ma wax la ban société nga am yoo muy muy wone kon solo soo xamante ne moom ndaw am na ko waaye importance boo xam ne ndaw am na ko ci réew am na ko ci ab société waaye dañu koy gën a wàcce nag thème bi ba fii nga xamante ne bi moom lañ nekk te mooy dëkk bu sell bii nii muy Touba mawduu mooy ashabaabu fi Touba bayna al waaqi wal mustaqbal muy ndaw yi ci dëkk bi muy Touba gii nii seen tey maanaam seen tolluwaayu jamono tey jii nii nan la mel waaye tamit lan lañuy ñuy njort wala lan la ñuy xaar ci ñoom ëllëg seen ëllëg nan la su defee kon tomb yi nga xamante ne bi moom la sëñ bi war a ñëw ak ñun ci biir waxtaan wi danañu waxal importance bi nga xamante ne bi ndaw am na ko ndax junj naa ko léegi kon danañu waxal importance bi nga xamante ne bi ndaw am na ko waaye tamit ndaw tamit nit ki ci tolluwaay boobu am na ay aajo am na ay yitte yoo xamante ne bi da koy am maanaam euh, tolluwaay boobu dafa am yu muy laaj dafa am yu muy soxla su defee yooyu tamit sëñ bi na ci ñëw ak ñun ñëw yi tamit ñun toll yitti yooyu ak bëgg-bëgg yooyu nga xamante ne bi euh, tolluwaayu ndaw da koy soxla nan la ko sëñ bi moom exploité nan la ko sëñ bi moom istismaare nan la ci yan investissement la ci def su ko defee ci juróomeelu tom bi dina ñu waxal itamit nag mooy ndaw ndaw yi tey yi nag nan la seen seen seen tolluwaayu tey nan la su ko defee door a ñëw ak ñun lan lay njort ci ñoom ëllëg lan lañuy ñuy xalaat ci ñoom ëllëg waaye loolu ñuy xalaat ci ñoom ëllëg yi tamit dafa am ay jéego dafa am ay jaarawaay yoo xamante ne mënu cee ñàkk su ko defee mu door a door ñu daal di tëjal waxtaan wi kon loolu mooy tomb yi nga xamante ne bi moom la sëñ bi tënkee waxtaan wi kon ngir uh, dugg ci waxtaan wi rek bañ ñàkk waxtu bu bari dañ koy jox kàddu gi kon sëñ bi bisimilah kàddu gaa ngi noonu aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani aus billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, suñu saas juma ñoo ngi lay nuyu jaarale ci ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoo ne ci jataay bi waaye itam ñi nga xam ne nii ñoo ñuy topp ci jumtukaay yu xarale yi nuyoo bi ak ziar bi ñu jiitatal xalifatul am lil muridin ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan ak suñu borom yàggal ko fii te mottali ay naalam waaye teg nuyoo bi nag ci loxol jëwriñu barab bi di sëriñ Moustapha mu jot li ko mboolem ñi nga xam ñoom la seqal liggéey bi di rafetlu ni nga laytaay jataay bi di nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci ni nga waxee tomb waxtaan nañu war waxtaan ci ndaw tuubaay yi liñ seen melokaan tey ak li ñu sént ñoom ëllëg loolu nag defe naa ne tomb bu am solo la boo xam ne nii mat nay waxtaanee ndax dañuy faral di wax ne ngir tabax ab dëkk walla tabax am réew mënta ñàkk ki ko bëgg a def mu tàmbalee njëkk ci tabax doomu aadama ci boppam nit ki ci boppam ndax su dul loolu nit ki ci boppam mooy màbb li nga xam ne ni tabaxoon nga ko ba noppi ñu waxit ne ngir màbb ab civilisation bu manti doon dox jëm ci kan bu manti doon boo ko bëggee màbb boo bëggee far melokaanu nit bëgg far mbat itam jarut ngay ñëw di màbbu tabax yeeg ya ca aju ak yu mel noonu waaye fexeel ba màbbu nit ki ci boppam rek boo màbbee nit ki ci boppam rek lam tabaxoon lépp day daal di ànd ak moom màbb kon nit day màbb dangay tabax nit di màbb waaye tam nit dana màbb tabax ba jaar ci màbb kon dañuy weccante ci fànn yu mel noonu loolu tëralin la woo xam ne nii saa yu ñu xëyee dañ koy gis ci sunu mbedd yi ak ci dëkk yi ak ci sunu melokaan yi da ciy feeñ bis bu set saa yu ñu xëyee gis doomu aadama nit rawatina ñi feere ndaw ay waxambaane ñuy màbb loo xam ne ni ay mboolooy mbooloo ñoo ci dugaloon seeni loxo ci diir at yu baree bari ngir taxawal ko ñoom ñu xëy màbb ko ci ay waxtu yu néew wala ay fan yu néew moo tax kon yittewoo catégorie boobu mooy xale yi ndaw ñi ci yar leen waaye forme leen waaye itam yee leen soññ leen waaye tam fexe ba occuper leen loolu dafa bokk ci nattukaay yi nga xam ne ni dañ koy jëfandikoo ngir natt tolluwaayu yëg-yëgu aw xeet walla mbooloo ci seen wàllu dox jëm ca kanam seen wàllu développement ak seen wàllu yokkute jitte ji ñuy jox ndaw ñi ci fànn yooyu moo xoon léegi mooy yar beeg formé beeg yeegeeg soññi geeg occupé gi loolu dañ ko natte tolluwaayu aw xeet ci seen yëg-yëg ci seen dox jëm ca kanam loolu itam ñiy defar ñëpp teel nañ koo xam ñi nga xam dañoo ñëw ngir jooyante aw xeet teelan nañoo xam lu mel noonu yittee ndaw yooyu waaye itam yàqkat yi itam teel nañ koo xam moo tax ku nekk ci ñoom day mel ne foofu nga jubluwoon ngir tàmbalee fa taxawal sa projet de société bi nga xam ne nii moom nga amoon parce que yéene taxawal moo xam ñi nga xam dañoo bëggoon a taxawal xeet bu baax wu su tegu ci yoon wala ñoo xam ne nii dañoo bëgg a taxawal xeet woo xam ci ñun ñu ko gisee ñun ak yàq lañ koy tuddee waaye comme ci doon ci ñoom da ngay yaa ngi tàmbalee ci ndaw ñooñu ngir mën a taxawal li ngay taxawal moo tax tey suñu gisee ay réew yeneen di jël ay milliards yu baree bari ci xaalis ñëw di ko dugal ci suñu réew yi ñu nekk ñun jaarale ko ci di dugal ci njàng mi def ay programme yoo xam ne xale yi noo koy tax a jóg boo ko defee ñi nga xam ne nii xëy na seen xel nàccut na mu war a nàcce dañuy tagg réew yooyu naan dañoo baax dañuy dimbali ak yu mel noonu fekk na la ca gannaaw milliards yooyu leneen moo ko tax a jóg te ñoom xam nañ ko moo tax ñu ciy def seen milliards yi waaye amu ci kenn ñoom koo xam ne nii yaa ngi def ngir lu jariñ ndaw yi réew meneen réew wala yaa ngi def ngir loo xam ne dañu wax ngir yàlla tax nga di ko def ndax ku nekk xam ne ni ci wàllum libéralisme moom ngir yàlla ak ay jikko yu baax yooyu taxu leen a jóg ñoom kon lépp lu ñuy def am na intérêt bu ñuy dàq ci gannaaw léeg-léeg nag umpale guñ koy umpale nag moo tax ñu jàpp ne ñoom dañuy dimbale wala dañuy jàppale wala seenu mbaax moo tax ñu di ko def kon ñoom ñooñu nga xam ne nii dañoo yor projet boo xam ne nii ñun dañoo gëm ne ak yàqute mooy ci ëpp ñoom it ci ndaw ñi bu ñëwee ci lañuy tàmbalee di def seen liggéey boobu waaye naka noonu tam bu ñu delloo gannaaw tuuti dañuy gis ne ku mel ne yonent bi wasalaam bokk ci ñi gën a màgg ci ñiy jojante aw xeet te histoire xam leen moom it gis nañu bu ñëwee bi mu ñëwee ci groupe boobu mbooloo moomu xale yooyu ci la sukkandiku waaye itam ci seeni wagg ci la taxaw ba taxawal civilisation boo xam ne nii demoon na ba wër àdduna bi war ngal këpp foo dem fekk fa jeexit yoo xam ne nii jullit ñoo ko fa bàyyi woon ca jamono yooyee waaye ba ñu demee ba gis ne ak yàquti commencé ne dugg ci ndaw ña ñu nekkoon ci jamono yooyu ñu dem ba gis ne bàyyandiku mi ngi commencé dugg seen biir dem ba nuur ci ay bànneex ak lu neex bakkan topp bakkan dañoo gis ne loolu dafa ñëw nag yokk ak ànd ak yeneen facteur wala boog ànd ak yeneen tërlin yoo xam ne ni ñoo ñëw àndandoo moo tax civilisation boobu nga xam ne jullit ñoo ko taxawaloon ca la jaare daal di màbbu daal di daanu sëriñ bi nga xam moo ñu gën a jege muy sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu te nekk ci dëkkam bii di Tuubaa moom itam génnul regal bi ñu waxta bi ñu waxtaani noonu moom itam bi mu ñëwee te yor projet de société boo xam ne nii gis nañu ne jubbanti askan wee ko tax a jóg tegaat nit ñi ci aw yoon indi xeet boo xam ne nii dinañ ko gërëmloo moom it gis nañ ne teel naa xam ne yittey ndaw yi ba teel a tàmbalee ci ñoom dëkk bii di Tuubaa ku nekk xam na ne sëñ bi bi mu koy tabax bi mu koy gor di ko taxawal ay ndaw la àndal yoo xam ne ni moo leen yar yéege leen ñu doon ay ndaw yoo xam ne dañoo gëm seen borom ba noppi tegu ci njub kon Touba sëñ bi mi ko tabax ci ay waggi nit ñoo xam ne nii kenn ci ñoom matul doon ñeent fukki at ca jamono yooyu te ku nekk xam ne ñooñu dañu leen di tuddee ndaw ci ñooñu la sukkandiku ñu doon ab lim àndak ñoom ba garu dëkk bi ba taxawal ko nekk fekk ñoom itam diiru bu mat juróom-ñaari at bu mu juróom-ñaari at yi mu génn fi tukki tukki bu yàgg wan leen gannaaw boo xam ne dafa defal ma juróom-ñaari at ñëpp jàppoon ne bu leen wanee gannaaw comme xëy na ñoraguñ ñor gi ñu war a ñor dañuy daal di tasaaroo ku nekk dellu ci la nga newoon mel na nga meloon waaye gis nañu diiru juróom-ñaari at yooyu leen sëñ bàyyi gannaaw ñoom ñëpp dañoo gën a mooy gën a téye njàngale mi nga xam moom la sëñ bi defoon ci ñoom waaye itam seen pas-pas ci sëñ bi dafa yokk gën a dëgër te mu doon dañ doonoon ñoo xam ne nii ci jamono ji ay ndaw lañ leen di tudde nu gisit ne sëñ bi bi mu delloo ci boromam subhaanahu wa taala ci atum 1927 ñim bàyyi woon gannaawam ñu ne ñu di ak njabootam booba ci zahir ci ay at dañ naan ay tuut tànk lañ woon ndax ki ci féetoon mag mu Cheikh Mamadou Moustapha booba ñeent fukki atam ci la toll te moo ne liñ doon toll toll foofu ci saayir réalisé nañ loo xam ne ni ci ay ay taxawaay ak i jëf loo xam ba léegi dañ koy waxtaane waaye tam ba léegi royteef lañ koy jàppe ci ñi nga xam ñooy jund ci jamono ji kon ndaw ñi yàgg na ci histoire nit di sukkandiku ci ñoom ngir taxawal lu am solo waaye tam yàgg na ci histoire nit di sukkandiku ñoom ngir màbbu lu am solo moo tax nag jamono nag ni muy doxee ku nekk xam nañ lu muy gën di yàgg am yeneen yu bees yoo xam day gën di dugg kon xëy na sëñ bi bi mu léegi ci limu at bareegul lool waaye man si naa wax ne mi ngi commencé yàgg ndax téeméer at mu jege kon nag yàggug jamono ak doxug jamono ak yeneen mbir yoo xam dafa ñëw yokk ci yoo xam dafa ñëw yitteel ñun ñu dëkk ci barab bi waaye itam yeneen yoo xam day dellu ci nosinu àddina bi ak taw tolluwaayu àddina bi loolu lépp dafa ñëw nag àndandoo ñu gisaat ne tuubaa di dëkk bi duggaat na ci yeneen melokaan yu bees yoo xam ne nii day samp ay laaj yu baree bari yoo xam ne nii laaj nañu gëstu ko jéem ko wutal ay tontu ci melokaan bi nga xam ne nii ci lañ toll ci dëkk bi jamono jii dem samp ay laaj bokk na ci laaj yi nga xam ne samp na ko mooy ndax ndaw ñi waxambaane yi nga xam ne nii ñoo nekk Touba ci jamono jii ndax ñoo waxambaane yi àndoon sëñ bi di sanc dëkk bi ndax ñoo bokk aw melokaan wala déet ndax am na kenn ci ñun koo xam ne nii mën ngaa may sa bopp muy gëm ne kenn ñun koo xam ne nii mën ngaa may sa bopp muy gëm ne waxambaane yi ne ci dëkk bi ci formation bii ñu yore jamono ji ñu toll nii ndax mën nañoo séentu ñoom ëllëg. ñu wëyal liggéey bi nga xam ne nii waxambaane yi leen jiitoo woon ak sëñ bi taxawal ko ba mu agsi fii mu agsi ndax ñu bari ñun seetluwuñ ay melokaan ak i jikko yoo xam ne nii wuute na lool ak njàngale mi nga xam moom la sëñ bi jàngale woon muy gën di yokk saa yu xëyee muy gis muy gën di yokk ci biir waxambaane yi nga xam ne nii ñoo ne ci dëkk bi ndax ñu bari ñun seetluwuñ lu mel noonu ndax amul ne jàpp jàppuñ ne li ñuy tudde al infijaaru sukkaar yi te mooy explosion démographique maanaam mooy yokk gaaw gi nga xam ne nii ñi dëkk tubaa yokk nañ ko yokk gaaw loolu doxandeem ñi nga xam jóge nañ fi nekk ñëw fi am ñu jóge ci kaw gi ñëw waaye rawat nañu jóge ci taax yi ñëw fi ndax ñooñu indaalewuñ fi ay jikko ak i melokaan yoo xam ne nii indi na ay ngirteef ngirteef yoo xam ne nii yu safaanu la ak li nga xam ne lañ doon séentu ci ndaw ñi nga xam ñoo war a nekk ci dëkk bi ndax ñooñu àndaale fa ay jikko ak melokaan yoo xam ne nii wàllu nañ ko ndaw yi waa dëkk bi wala ñu roy leen ba far dàq leen ca féete leen ca kaw. am na gëstukat bu mag boo xam ne nii ci gëstukati yoon wi la bokk gis nañ ko ci jataay mu am lu mu wax donte xëy na la mu wax lépp mën nañ caa bañaan ànd moom waaye li mu analyse li ko jox mooy ne moom Touba dafa gis ne bu ko doon tënk dafay gis ne bombe démographique la. à maanaam mooy bomb boo xam ne nii ci wàllum nit dëkkin ay mbooloo bis dana ñëw mu mu mu ne teel daal di exploser moom noonu la jàpp ne dëkk bi noonu la loolu nag war nañ koo xool loolu mu wax noonu fan la toll dëgg-dëgg ak ban taxawaay lañ ci war a am ak noonu ko war a gisee ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi ay at yu néew ci gannaaw bu ñu delloo ci gannaaw danañ gis na ci at yu néew ci gannaaw gis nañ fi nangam yoon lu mu néew néew ñaari yoon. yoo xam ne nii waxambaane dëkk bi génn nañ ko taxaw ci mbedd mi ngir wane seen naqar ci ni mbir yi doxe loolu gis nañ ko fi benn lu mu néew ñaar yoon ci dëkk bi ndax dañoo jàpp ne ñooñu ab discours rek bu ñuy joxe ndax doy na ngir ñooñu ñu delloo leen seen place walla mënta ñàkk ñu jëfandikoo yeneen nosin ak yeneen tëralin yoo xam ne nii dana gën a dëppoog seen tolluwaay ñoom ndaw ñooñu wala boog ndax mënta ñàkk bomb boobu nga xam ne nii moom la gëstukat boobu waxoon ne moom moom la jàppe ne moo nekk Touba ndax waruñ koo def li ñuy wax démantelé maanaam ndax waruñ koo tas ba dootu mën a ba dootu mën a tàkk ndax loolu waruñu wala dañoo war a toog rek di fexe nuñ mën a gën a yeexale tàkk gi war a tàkk te bis mu tàkk mooy ndax waruñoo fexe ba ndaw ñi ni ñu bindoo ñu teel koo cee wax ak matukaay yoo xam da koy saafara saafaraa ko ca reen ya waaye bañ a réwut loo xam da koy dànk rek te bis dina ñëw la ko doon dànk bu jeexee lay xew day xew kon ay laaj yu bare bari samp na ci sunu kanam ci ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi te jàpp ne war nañ fee am liggéey bu ñu fi liggéey te tontu gi ñu ko war a tont it mënta ñàkk ndax tontu googu ci la ëllëgu dëkk bi ak xale yi da ciy maanaam da ciy jaar da ciy jox lu baree bari loolu nag lu gàtt gàtt daal alaqal bokk koo xam ne nii ci sam xel dong nga yor di ci niiru moom da gis ne loolu mënta ñàkk ki am leneen lu koy dimbali nag ba mu am beneen gis-gis moom boo xam ne ni weesu na am xel weesu suñuy bët kooku la muy gis ak la muy wax moom kooku taxul ñuy wax waaye ñoom ñu ngi wax ak ñi nga xam ñoo toll ñoom ci jàngat mbir te di ko teg ci xel kese boo ko dee jàngat teg xel nag da gis ne laaj yooyu moom mënta ñàkk. ñu wutal ko ay tont ngir ñu mën a yaakaar ne ëllëg li ñuy séentu ci waxambaane dëkk bi danañ ko mën a am ci ñoom ngir waxtaan yokk ko nag wala gën koo leeral nag danañ wax tuuti ci yitte ji nga xam ne nii solo gi nga xam ne nii tolluwaayu waxambaane am na ko solo ci biiru askan ak li nga xam ne nii tolluwaayu waxambaane dana ko jur ci ay soxla ci ndaw li nga xam moo toll foofe su ko defee daañu xool itam sëriñ bi ci boppam sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu naka la investir moom ci bëgg-bëgg xale yooyu ak seen yëg-yëg yooyu ñuy toll naka la ko jëfandikoo ci orienté xale yi ci fànn gi nga xam ne fa leen bëgg a jëmale su ko defee nag ñu tënk itam ndaw ñi ci dëkk bi niñ leen gisee ñun ci jamono ji ñu toll nii ak li ñuy séentu ñoom ëllëg su fekkee dañoo sukkandiku ci niñ leen di gisee jamono ji ñu toll nii waaye nag yan jéego lañ war a def jàpp ne war nañ koo def. yoo xam bu ñu ko defee ëllëg ji ñuy séentu ñoom dana dëppoog ëllëg ji nga xam ne ni moo ñuy gënal loolu defe naa ne mooy doon tënku waxtaan bu ñuy waxtaanee ndaw ñu fii nag am na ay ñoo xam ngi ci biir ay ndaw mel nañu war a mel di liggéey def lañu war a def ñooñu xëy na taxul ñuy wax waaye dafa am phénomène boo xam ñu ngi koy gis muy gën di yokk muy ndaw ñi nga xam ne ni ñoom lañ xamoon ñu nekkoon ci lañ war a nekk day mel ne am na yeneen ndaw yuy wàll si di leen fàbbi di leen yóbbu ci beneen melokaan looloo tax ñuy def li ñuy wax alerte alerte nag mooy boo gisee ne am na luy xuuy fële te buñ ci waxul dana tàkk nga teel a wax xamle ne am na luy xuuy bu ko defee ñu mën caa jël matukaay yi teel koo fay balaa doon lakk goo xam ne nii fay ga dafay jafe kon foofu la waxtaan wi dugg waaye kenn waxul mukk nag ne ndawi tubaa ñëpp meluñ nañ war a mel akay ah, am na ñoo xam ne nii ña nga ca nañ war a mel waaye nag li wàll si te bokku ci ñooñu ñoo tax ñi waxtaan wi xëy na loolu foofu lay gën a jëm donte ñële mën naa am dañ dugg ci biir kon dañuy gis ne nit bu juddoo ba bu juddoo rek ak dundam dañ koy séddale ay xaaj xaaj bu ci nekk nag dafa am lu mu soxlawoo dafa am tam lu ñu war a jëflanteek moom ba xaaj boobee ñu mën koo jariñoo nit bu juddoo dana def li ñu tudd li ñuy wax parental parental lay njëkk a nekk parental boobu bu ko nekkee dana am lu muy soxla dana am it nu ñu war a jëf jëflanteeg moom ba mu man ñoo jox nit ki ñu soxla bu fa jógee wala ba bu nekkee liir jógee fa nekk parental muy ñaari étape yi njëkk bu ci nekk am na nu ñu war a jëflanteeg moom su fa jógee nag toll ci war a ñor ñor bu ñu ko waxee mooy fi nit di àgg war a mën a am amul njaboot bu dee jigéen wala góor foofu tam nit bi fi tolloo diggante bu xat diggante bu am solo ci dundu doomu aadama moom it am lu mu soxlawoo ci wan nu ñu war a jëflante moom su fa jógee nag lay door dugg ci lu ñuy wax waxambaane waxambaane woowu am nu ñu war a jëflante moom ba moom it waxambaaneem googu maanaam tolluwaay boobu mu toll nu mën koo jëfandikoo ci gën jaa su fa jógee dugg ci li ñuy wax ab dor dor yi moom it tolluwaay la mooy diggante waxambaane ak màggat su fa nit jógee nag lay door dugg ci màggat su fa jógee nag xëy na faatu moo cay topp loolu nag dañ koy def ay at ay at lañ koy ji lañ koy séddale ci misaal tey dañ naan ñaari at yu njëkk yi loolu la ñu tuddee euh, sinnil mahad wala boog xale bi fi muy toll ci nàmp su fa jógee ba keroog mi am juróomi at loolu la ñuy tuddee parental moom la su jógee foofu ba keroog mi am ak ñaar ñu tuddee ko euh, xale su fa jógee ne fukki at ak ñaar nag jàpp fukki at ak ñett fukki at ak ñeent. foofu la ñuy tuddee muraaxiq muraaxiq mooy ki ñuy wax adolescent adolescent mooy ki nga xam ne ni bu dee jigéen mandarga yi jigéenam day commencé feeñ bu dee góor tam mandarga góoram di commencé feeñ foofu lay nekk ba keroog mi fukki at ak wala léeg mu dem ba ñaar fukki at diggante ñaar fukki nag ba fanweeri at ak wala ba ñeent fukki at foofu la ñuy tuddee ak waxambaane su ko nit ki weesoo ñeent fukki at ba juróom benn fukki at kooku la ñuy tuddee ab dor yi lu topp juróom benn fukki nag kooku moom la ñuy tuddee màgget ci ñu ko ñenn ñu di xalaat xëy na séddalin woowu moo gën a siiw ci ñi nga xam dañuy sédd dañuy gëstu ci wàllu xam-xam ci wàllu xam psychologie doomu aadama noonu lañ koy séddalee étape bu ci nekk nag dafa am lu mu dafa am tam nu ñu war a jëflanteeg moom xëy na kon yooyu yëpp duñ ko waxtaane benn rek lañ ciy jël te mooy étape bi nga xam ne ñu ci étape bu waxambaane waxambaane dafa am ay jagle. ay xàmmikaay ay melokaan yu baree bari yoo xam ne nii moo koy ràññat lekk étape yi nga xam ñoo ko jiitu woon ak étape yoo xam ñooy ñëw gannaawam bokk na ci liñ koy gën a xàmmee mooy ne tolluwaay la boo xam ne nii ci la nit ki amee ay transformation yu mag a mag ay soppiku yu mag a mag day am ci dundu nit ki ci lay jógee nag ci dëgg-dëggi étape bu xale ak ndaw dugg nag ci beneen étape boo xam ne nii day commencer di sukkandiku ci boppam xëy na la ko jiitu lépp da doon sukkandiku ñeneen ñi ñu koy defal di ko yóbbaale diggante bon bu fi tolloo day commencé yëg nag ne war naa mën a sukkandiku ci boppam yëg-yëg boobu muy am nag mooy def ci biiram yëg-yëg gu ne kon daa jot sëkk nag ñu jox ma ay responsabilité ma gàddul ko sama bopp ma jël samay mbir yor ko ci samay loxo di ko doxal sama bopp waaye tam warut a nekk loo xam mag ñoo koy yor di ma ko doxalal loolu yëg-yëg la boo xam ne day nekk ci biir waxambaane te boo ko bariwul xel nag mën naa indi ay gàllankoor yu baree bari ci dundin yi naka noonu tam am na ay soppiku yu baree bari yu xóotu xóot yoo xam day am ci màndargay yaramu nit ki nga xam ne ni cër yi day màgg day màgg mu am jëmm lool waaye itam cëri biir yi nga xam ci biir lay nekk moom itam day màgg màgg gaaw googu muy màgg nag da koy jox kàttan ak maanaam activité maanaam ak cawarteeg biir ak kàttanu yaram koo xam ne da koy jox beneen énergie boo xam ne nii day yokk lu ëpp lay doon maanaam lim soxla ci jëfandikoo ko day am kàttan goo xam ne da koy féete kaw ci misaal tey bu fekkee kuy jàng la da ngay gis ne bu tolloo foofu waxtu yi ñu koy jox ngir mu di ko jàng mën na koo jàng ba noppi dese kàttan gu baree bari goo xam ne nii day soxla feneen fu mu koy def même bu dee liggéey man ngaa gis koo xam ne nii bu tolloo foofu mën naa xëy liggéey ba juróom-ñett juróom-benn waxtu ci ngoon jot xëy 8 heures ba 6 ci ngoon di liggéey te bu wàccee du tee nga gis ko muy cëpp cëppi dese kàttan gu bare bari goo xam ne nii daf ko war a soppax ni ko ci yeneen kàttan googu di des nag daañ ci ñëw ci kanam tuuti il faut ñu am fu ñu koy wutal foo xam ne nii fa la koy soppaxndikoo wala boog fa la koy dépensé boo ko deful rek kàttan googu mën na ko yóbbu ci leneen loo xam ne nii ay rëq-rëq lay junn danañ gis ne foofu bu ci nit ki tolloo ak fugloom ak yeewutam maanaam xalaat yi xalaatinam dafay màgg bu gaaw mémoire am dafay màgg ci lu gaaw imagination maanaam li muy généré dafay màgg ci lu gaaw kon xelam xalaatam dafay ubbiku foofu nag bu fa xale bi bu fa ndaw li àggee da ngay gis mu commencé nag dootu yam ci nangu rek xalaat ak cëslaay ak principe ak mbir yi nga xam mag ñoo ko daan wax rek mu di ko gëmee noonu léegi dangay gis ne commencé nag bëgg nag di ko discuter di ci discuter lu baax a baax boo waxee mu mu loo wax mu teg ci baat parce que yéen discuter yow loolu tolluwaay lay doon ndax foofa dangay gis day faral wàllu pas-pas yi wàllu ngëm-ngëm yi wàllu aada yi wàllu cosaan yi da ngay gis lu ci baree bari da ngay gis mel ne da koy bañ wala boo boo ko ci waxee loo ko ci wax il faut que mu indi ca débat boo xam ne nii. ba mën naa yàgg lool te day it di ko teg ci am xel loolu boo xamul nañ cey jëflante ak ñoom ba tey mën naa indi ay rëq-rëq ci doxalin mi bokk na ci tam liñ leen di xàmmee mooy ne foofu bu fi nit ki tolloo da dul amati ak dal gi mu war a am da ko dul am maanaam baj yi biir da koy yomb ak jaaxale gu bari tam da koy dikkal ndax avenir am day taxaw ci kanamam leneen taxaw ci kanamam mu war a tànn yu baree bari lu baree bari taxaw ci kanamam loolu di ko jural ak jaaxle bu ko defee moom mën na ko indil ay problème moom ci boppam waaye itam diggam ak ay ay waa këram ay waajuram ak ñu mel noonu waaye itam diggam ak askan wi diggam ak mbooloo mi kon foofu dañu gis ne xale bi day am li ñuy wax fipp fipp daf koy yomb maam ñu bare bari bu ñu tolloo foofu dangay gis ne dootuñ juboo ni ñu war a juboo dëgg-dëgg ak seen waa kër ndax na usra ba na famille bay doxe ñoom dañuy jàpp ne noonu daal bëgguñoo doxe noonu te war nañoo wane seen bopp ne féttéerlu nañ ci kaw famille boobu loolu ku ci yor xale bu tolloo foofu boo xamul ni ngay jëflanteeg moom mën naa tax xale bi dem ba yoru melokaan woo xam ne nii du la gënal yooyu kon sopp ko yu la bari yoo xam ne nii xale waxambaane dañ koy gis ci moom di ko seetlu ci moom mu laaj nga xam ko bu baax yow mi mu nekk ci sa loxo waaye itam nga xam ko bu baax ngir mën a xam nooy jëflante ak moom te yow it dañ gis ne day indi yeneen soppiku yooyu yooyu nga gis ne day indi soppiku ci wàllu cër yi indi ko ci wàllu yëg-yëgi biiram indi ko ko ci wàllu xelam bu ko defee cër yi ni muy màggee noonu moom it day am ay soxla ndax nit bu fekkente ne da màgg màgg gaaw màgg ngay màgg cër yi ni muy màggee di yokk day am aajaat aajaat yu baree bari yoo xam ne sax mën naa bañ a doon sax nag lu lu lu lu jafe lool lool waaye day am ñëpp koy bokk itam waaye am soxla yoo xam ne day soxla nit ki ñu yokkal ko ko ci misaal tey li muy soxla ko ci li muy jëfandikoo day yokk bu baax a baax ndaare bu ñu tolloo foofu moom jox leen lu fees seen biir di yomb xanaa kay da ngay jox rek ñu kii waaye fu ñu toll ñoom mën nañu jëfandikoo ndax ci mag gi ñu mag gaaw gi mu gaaw day jur soxla yu bari yu mel noonu. li ñuy soxla ci wàllu eh, noppalu tam dafay feeñ ndax activités yu bari yi ñuy def li ñu daan soxla ci cër ci nelaw mën naa am dafay yokk waaye xëy na nag liñ ci gën a yitteel ñun fii du lekk geeg nelaw yu mel noonu waaye yëngal yaram li ñuy wax tàggat yaram foofu xale bi daf koy soxla woo lool lool ndax waxoon nañ ko léegi day am kàttan ak physique boo xam ne nii énergie boo xam ne nii il faut que mu dépenser ko ñu gis nag ne bu ñëwee fii ci suñ dëkk bi. xëy na li njëkk yox yëpp mën na fee mat jëfandikoo yow moom jëfewu nag lii ma mu jox muy tàggat yaram gi dafay nekk escalier maanaam problématique la boo xam ne nii yaakaar naa ne il bokk di ci toog xalaat ci waxtaan ci xool yan solution lañ ci mën ndax yëg la boo xam ne nii xale bi daf koy soxla te bokk ko xañee nag mën naa jël énergie boobu dépensé ko ci leneen loo xam ne nii du bokk la nga bëgg la nga xalaatoon wala la nga bëggee ba tey itam aja yi mi soxlawoo ci wàllu dundiinoom ci as ci biiram wàllu affection li ñuy wax affection maanaam lu ñu wax wujdaan yi nga xam mooy yëg-yëgi biiram moom it nit ki daf koy soxlawoo ngir mu mën a am équilibre psychologiquement ngir mën a dund ngir yëg-yëgu biiram yooyu mën a mat ànd ak yëg-yëgu bitteem bu ko defee dundam mën a nekk dund koo xam dafay mën xew leen du cëb morom ci misaal foofu bokk na ci li muy soxlawoo dëgg-dëgg ku ko jox taqdir ku ko estimer maanaam wan ko ne ko yaa ngi di ko maanaam faale ko ku ko faale day soxlawoo ku ko faale lool jamono yi bu fi tolloo waaye tam day soxlawoo ku respecté jëmmam yooyu yëg-yëg la yoo xam ne ni ndaw li daf koy soxla bu tolloo foofu ngir mu mën a dund dund ku équilibre ndax xam ngeen ne buñ demee ci bëgg-bëgg doomu aadama gëstukat dañ koy tënk def ko lu ñuy wax pyramide pyramide mooy lu lu tamaas ci suuf jëm ci kaw nit am na foo xam bu fa soxlaa bu fa tolloo la muy soxla dëgg-dëgg mooy lekk ak naan waaye lekk ak naan su xasee mat beneen aajo day juddu bees aajo juddoo beneen juddu beneen juddu boo boo so boo faj rek beneen day juddu day dem nag ba soxlu sox dootu wax waxi lekk dootu waxi naan dootu waxi waaye la muy waxtaane mooy ku ma jox cër bi ñu ma war a jox ci askan wi foofu dafay toll kon foofu dañuy gis ne ndaw ñi énergie bu mag a mag la kàttan gu réeréy la xam ne nii ci biiru askan wi suñ xamee nuñ koy jëfandikoo mën na noo jariñ lool waaye nag suñ xamul nuñ koy jëfandikoo keneen dana ñëw jëfandikoo ko ci loo xam ne nii suñu loraange moo ciy juddoo te nag yoon wi gën a yomb ngir énergie boobu ñu sànk ko ci ay caaxaan ñu ñàkk ko ci lu dul njariñ ba ci jiitu mooy ak jot maanaam ak jot faraa nit ku amul jot walla nit ku toog loxoy neen amul métier bañ a def dara wala di jëfandikoo forcé wala ñàkk a tasaaroo ci biir mbooloo ci biir ndaw ñi yooyu moom bokk na ci li gën a mën a yàq énergie bi nga xam ne nii xale yi dañ koy am dañ waroon ko mën a jëfandikoo ci loo xam ne day dellu si njariñul askan wi kon toog loxo yi neen defuñ dara faraax ak jot wala ñàkkub liggéey wala ñu leen di forcer ci loo xam ne nii bokkut seen jubluwaay walla ñàkk jàngoob tasaaroo seen biir yooyu nag dañu gis ne lu xaw a tasaaroo la ci sunu barab yii ñu nekk ñun boo doon xool tey liñ ci mën a gën a tënk muy barabi bi jàngukaay yi nga xam ne ni moo waroon a jël lu bari ci jotu xale yi war leen a former ëllëg tam war a def ñoom tam melokaan yi ñuy soxla dañuy gis ne barab bi jàngukaay yooyee matul ci biir dëkk bi te li fi am itam am na ci ci bari yoo xam ne ni la fa war a nekk lépp nekku fa manqué na fa boo gisee tam barab bi liggéeyukaay itam yu ndaw ñi mën di xëy ak wàcc ci dëkk bi manqué na fi lool bu weesoo commerce mooy jaay jënd daanaka beneen beneen barab buy jël mbooloo mu baree bari ci ay ndaw ci dëkk bi bokk na ci li fi manqué li fi manqué bu dee nag foo xam ne nii nag xale yi dañ fay seen waxtu woowu nga xam dañ koo am te def nañ li ñu waroon def ba noppi la leen dese ci waxtu ñu waroon caa féexal seen xol ci misaal war caa yeesalaat seeni seen kàttan loolu dañ gis ne barab yu mel noonu manqué na fi loolu te loolu itam mënta ñàkk ci ab dëkk ndax ndaw ñi dañ koy soxlawoo boo ko fa defu tam mën naa am ñu wuti ko feneen te fañ koy wuti mën naa am ñu dugal ci biir loo xam ne nii du bokk ak lañu bëgg te ñenn ñi sax dañuy jàpp ne barab yi mel noonu di ko def ci dëkk bi ñoom dañoo jàpp ne daa wuuteeg njàngaleem sëñ bi te moo ne loolu xëy na ñàkk dégg njàngaleem sëñ bi la waaye amu ci lenn loo xam wut naag njàngaleem ndax barab bi ñu nekk rek maktaba la maktaba mooy bibliothèque bibliothèque li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy fu nit ñi toog di liir waxtu wi nga am liggéey nga li nga war a liggéey ba noppi am nga waxtu xam da ngaa war a yeesalaat sa xam-xam yeesalaat sa yëg-yëg nga dem toog ci bibliothèque nga jël sa livre liir loolu barab bi ñu toog ku nekk xam ne loolu moo doon cosaan li moo ko tax a jóg te ba léegi defe nañu loolu moo war doon liggéeyam te du benn ci dëkk bi Cheikh Saliou am na bu mu tabaxoon ci euh, jannatul mawa boobaan ma nga fa kon yooyu mag ñi ñoom tey lan nañoo xalaat ne barab yooyu mënta ñàkk ci dëkk bi bañ tàmbali woon cee liggéey xëy na kay la ca des kon mooy nu ñuy mën a fexee ba barab yooyu taxawaay bi mu war a taxaw mu di ko taxaw ndaw ñiit xam ne seen barab la bu ko defee waxtu yi ñuy am jot ñu bañ koo sànq ci leneen waaye ñu dem ci barab yooyu ngir mën faa yokk seen yitte yooyu daqonte wutam nag ñu wutal leen barab yoo xam ne moom itam xëy na dañ ci ñëwaat ci kanam tuuti moom it léeg-léeg bu ñu soxlaa yëngal seen yaram danañ ko fa mën a defee loolu lépp ay barab la yoo xam ne nii mënta ñàkk ci ndaw ñi ndax xam ngeen ne ci cosaan bañ daan nekk ci daara yi tàggat yaram dañ ko daan def bu baax ku nekk xam ne ne buñ àllarba ci ngoon wala alxames ak àjjuma jànguñu bu weer wi leeree nañ géew la ñuy def ñee nga fële di bëre ñee nga fële di jal bi jalaan ñee nga fële di gar ay po yoo xam ne nii tàggat yaram la ndax jal bi jalaan course la da ngay daw bëre ku nekk xam doole koy def gar moom ku nekk xam ne ne li ci nag xam nañ ko ay dóor yu méttee métti mooy am ci biir yooyu dañ ko daan jëfandikoo te moo ne loola xëy na foyo yi moo dem ba ñu baree bari ci xale yi xamatuñ ko nag xamuñu baree bari boo ko laaj xamuñ ko dëgg-dëgg te boobu dañu daan may li ñuy dese ci kàttan force boobu ñu mën di ko dépenser moo tax daawoo gis ndaw ñi ñuy dem ci yenn barab yi wala ñuy jëfandikoo yenn melokaan ndax amoon nañ ko loolu nag bu ñu demee kon xëy na ba jamono soppiku ba loolu commencé dañu manqué il faut ñu wut lu ko remplacer kon li ñu war a wutee foo xam ne nii dañ fay màggal seen xel di fa dépenser seen la des seenum xel te jëfandikoo wuñ ko ci fañ doon jàngee ci misaal noonu lañu ñu war a wutee barab yoo xam ne nii leen des ci kàttan yaram te jëfandikoo wuñ ko foofee bu ñu demee foofee mën ko faa dépenser loolu mënta ñàkk. kon ñu gis ne yooyu ay soxla yoo xam ne ni bu ñu bëggee ndaw ñi taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw ëllëg il faut que ñu bokk toog ci xalaat waxtaan ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moom ku teeloon xam tolluwaayu ndaw la. ak yëg-yëg yooyu nga xam am nañ ko ak soxla yooyu nga xam am nañ ko moom déggum ko dégg moo tax mu sukkandiku ci loola ba defar ñi njëkk a defar ñuy ay yoo xam ne nii waxoon nañ léegi ne moom ñoom ñoo àndoon bi ñuy sànc dëkk bi di Touba sëñ bi dafa investir ci ndaw ndaw dañ ci investir comme ni ngay jëlee alal di ko yokk noonu ngay investir ci ndaw dañ ci def waxtu wu magam wu baree bari def ci effort yu baree bari mu door a mel ni nga bëgg moo tax sëñ bi waxtu wu rëy rëy la def ci xale yam jamonoon teeloon waxtu wu rëy la def ci ñoom waaye itam effort yu mag a mag la def ci ñoom jaare ko nag ci di leen orienté ak di leen jubbanti waaye lépp luy xeeti forcé ak imposé sëñ bi gis nañu daawu ko jëfandikoo ci digg mag ñoo nga nga xam ne ñoom la doon defar nett lii bari na lool nett li bu nekk da nga dégg ñu nett li ko sëñ bi bi sàngam wax na diw sàngam bi sàngam wax na sama maam nangam waaye nett li muy bari bari dégg gu benn nett li boo xam dañ ne diw sàngam day ba mu defee bis sàngam ba mu defee nàngam sëñ bi dóor yam ko dóor loolu moom dégg guñ ko ñu nett li dégg guñ fu ñu nett lee ne diw sàngam ba mu defee sàng nàngam sëñ bi day nañ ko jéng loolu tam dégg guñ ci nett li dégg guñ ci nett li tam ku nett li ne diw sàngam ba mu defee nàngam sëñ bi day nañ ko tëj yooyu kon bokkutoon ci méthode yi nga xam ne nii moom la sëñ bi doon yare ndaw ñi mooy violence daaw ko jëfandikoo diggam ak ñam doon yar kon lan doon jëfandikoo mooy lan mooy taqoog ñoom taqoo googu la xale yi soxlawoo dëgg-dëgg mooy koo xam ne ni day mel ni war a mel ba noppi di taxook ñoom bi leen laabiire ci taxawaay yu wuute fu ñu taxaw fu nekk mu wax leen nañ fa war a taxaw ak lañ fa war a def loolu dana feeñ ci xasida yi nga xam ne nii moom la sëñ bi bind bayit yi ñu jàkkaarloo rek tegtal la ci fi muy wax ak ndaw ñu leen yéen xale yi bu leen soxlawoo lu dul ak njub waaye itam bu leen am soxla ci lenn lu dul ay xam-xam xam-xam yu wuute te bari nag bu leen am soxla ci lu dul boole jàng seen diine alxuraan te di ko mokkal waaye itam dee leen moytu jataay way texee yi muy lu am solo bu ñu ba loolu xale yi di wax ñoom ci noonu di leen ko leeral bañ xam jataay way texeet yi mooy yan ak naka lañ koy moytoo defe naa lu bare bari mën naa soppi waaye itam di leen responsabiliser di leen xamal ne kat ëllëg su fekkente ne. da ngeen a bañ a am kersa na ngeen jiital jàng balaa ngeen a jiital jëf balaa jëf di agsi bari tey koo xam ne nii kersa dab na ko lu ko teg mooy lan mooy ba mu waree former war a jàng jàngul ñu dem ba jiital ko nag du xam la muy def du xam la muy wax kersa ñeel ko loolu ay orientation yoo xam ne nii sëñ bi da ko doon bind di ko jàngal ndaw ñi ñu koy mokkal mu leen koy firil waaye nag di ànd ak ñoom di ko dund nga xam ne nii niñ koy jàngee ci théoriquement noonu lañ koy pratiquer ci seenu dund di ko gis ci moom di ko gis ci ñim ñi muy taxaw ànd na ñoom def noonu nga gis ne lu mel ni ki téere nax ju xadaayil xaaj moom daanaka téere bi yëpp mën ngaa wax ne génnut lu mel noonu mooy fexe ba orienté ndaw ñi jubanti leen muy lu am solo kon ndaw ñi du duñ duñ soxlawul force soxlawul dóor soxlawul jéng soxlawul kii waaye dañu wax ne yoon wi gën a gaaw ci yar doomu aadama mooy yow ni nga bëgg mu mel ko da ngay fexe ba mel ko te saa yu xëy mu lay gis day mel ne bu yàggee day mel ne jàngoro joo xam da nga ko koy wàll loolu defe naa ne gëstu la yu bari yoo xam nit ñi xam nañ ko léegi même njaay mi ngay gis nii tableau yi ngay gis ñu ko affiché nii nga jàpp ne du dara waaye saa yu xëyee gis ko saa yu xëyee romb ko saa yu xëyee gis ko bis ba ngay jënd marchandise mi doo ko tey day mel ne maanaam jàngoro joo xam ne nii daf la koy wàll kon loolu mooy li am solo mooy yow ñi nga bëgg a defar ñi nga bëgg ñu mel ko fexeel ba mel noona ba noppi nag bul tàqalikook ñoom saa yu ñu xëyee nañ lay gis bu yàggee jikko jooje danga leen koy wàll te sax du doon maanaam loo xam danga nga def jëfandikoo yeneen xeeti jëfandikoo yi kon ñooñu mooy ndaw ñi ak seen bëgg-bëgg noonu tam la ko sëñ bi xamee woon defe naa ne ku ci bëgg liggéey ci ñoom itam nag méthode boobu rek ci nga mën a jaare ngir mën a àgg fi nga bëgg àgg ak ñoom bu ñëwee ci réalité bi nag muy ndaw ñu ci Tuubaa nañ ko jàngate ñun ci jamono ji toll nii liñ ciy njëkk a seetlu rek mooy su fekkee da nga am sa bëtub kese di xool te jëfandikoo benn jumtukaay boo amee sa bët di jaar ci mbedd yi di xool da nga gis ne day mel ne ñi dëkk tuubaa ndaw ñi ñoo ci gën a bari fuuf ñi féete ak mag ñoo ci gën a bari bu mën nga ne sax maanaam pourcentage su ndaw ñi ci yoonu murit moo ëpp fuuf pourcentage su mag ñi ci yoon wi day mel ne ndaw ñi ñoo ëpp ci yoonu murit waaye itam dëkk bi ay ndaw ñoo ci ëpp loolu defe naa boo amee sa bët kese di ko xool yaa ngi koy xamee nag ci barab yi xew yi màggal yéeg xew yéeg ñuy dox ci mbedd mi ci nga koy xamee loolu booy xool day gis barab boo ci dem la nga fay mën a wàññi ci ay ndaw mooy foofu la fay mën a wàññi ci ay mag loolu nag lu am solo la te mooy ne lépp loo gis xool gis ci biir ay ndaw mën nga caa am yaakaar bu baax a baax waaye nag na fekk ndaw ñooñee la war a ànd ak ndaw ànd ak ñoom boobaa nga ci door mën a am yaakaar waaye nag su su defoon noonu moom. boo ci amee yaakaar xëy na danga koy teg rek ci rafet njort waaye doo ko teg ci loo xam ne ni xel dana ko mën a nangu kon xëy na lii tiitloo ki nga xam ne nii moom day taxaw di seetlu ci bariwaayu ndaw ñooñu ci biir dëkk bi ëpp giñ ëpp ci yoon wi bari ci lool xëy na boo amee lu tiit te ngay seetaan yeneen mbir lay doon mooy dangay gis ne ñu bari ci ndaw ñooñu fondement bi nga xam ne nii moo war a fondation jikko yu baax yi nga xam ne ni moom la ñu séentu ci murit di ko séentu ci koo xam ne nii dangay wuyoo wuyoo njàngaleem sëñ bi dangay gis ne fondement boobu dafa manqué ci xale yu baree bare dara jiituwu ca yar bu baax yar bu baax ak njàng mu baax mel na mu war a mel ak royteef bu mel na mu war a mel taqalikoo ñoom taqal taqoo ñoom yar bu baax da gis ne manqué na ci jamono ji ñu toll lool te loolu dañ ci ñëw ci kanam tuuti mu gën a leer njàng mi junjoon nañ ko léegi royteef nag ñu bari boo waxee ne royteef dañ naan royteef am na fi dëgg la kenn waxuñu royteef amul waaye royteef am na fi waaye royteef boo xam boo ko gisee bala nga ko gisaat mat weer wala ñaari weer te la ko gis du man ñaari minute booba royteef tax royteef dëgg-dëgg mooy ki nga xam day taxaw moo tax sëñ bi daana ko jàngale defar day laaj taxaw ki bëgg defar da ngay taxaw moom waaye nit ki mënoo koo defar te bu la gisee balaa gisaat mu mat nangami fan wala nangami weer wala nangami bis kon loolu kon royteef mi ngi fi waaye royteef bi taxaw ndaw ñi léegi moo xaw a jafe yar bu baax mooy lan yar bu baax mooy yar boo xam ne nii dana jox nit ki ay melokaan yiñ bëgg ci moom ñu xamoon ko bu yàgg lu mel ne joxe orma worma da yar bu baax dana ko def ci nit am mbañum rus looy jombale sa bopp yar bu baax dana ko def ci nit am kersa looy rus a def yar bu baax dana ko def ci nit yooyu nag yaakaar naa ne bu ñu doon xool dëgg-dëgg ndaw ñi ni ñeen gisee waxuñ nag ñëpp waaye ñu bari ci ndaw ñi ñuy gis ci dëkk bi yii ma tudd moom mi ngi commencé manqué ci ñoom bu baax a baax a baax a baax ñu tàmbalee ko ci waruma ji rek waruma fi mu nekk nii ñun dañoo wax ne turu sëñ bi am na ci mag ñoo xam ne nii buñ ko mësaan bëgg a tudd dañuy jàpp ba sell wàcc toog suuf door koo tudd léegi nag nga xool maanaam xale yi seen waruma digg ak sëñ seen bëgg sëñ kenn werantoo ko waaye na xëy na ñàkk guñ ñàkk xam ak yar buñ leen ñàkk yar bu baax moo tax niñ ko war a jàppee xamewuñ ko noonu damaa mës a dugg ci classe di jàngale benn xale bu ñëw sol ay dàllam yu rafet xam naa fonk gi mu fonk dàll yi moo tax mu bind bàmba fépp ci dàll yi ma ne ko ah waaw yow sëñ turu sëñ bi nga bind ci dàll yi te da nga ko yóbbu ci duus bi yóbbu ko fu nekk ni ko yóbbu xanaa xamul li ngay def xam ko kon xér na waaye xamut naka la ñuy warmaale sëñ sàllalu gi ñuy sàllalu sëñ bi mu tasaaroo lool léegi ci nit ñi loolu tam bu njëkk amutoon giñ gi ñuy giñe sëñ bi waruma jooju mu njëkk mag ñi sëñ ko woon man xam naa mag moo xam ne nii boo masaan boo ko masaan bëgg a yëngal da ngay jékki rek giñ ne barke sëñ bi jaar ci turu sëñ bi boo koy def dalay woo boo ñëwee ndax daan la kooku nga tudd xaju ci xaju ci gémmiñu xale kooku nga tudd aw turam xaju ci gémmiñu war ma jooju ñu joxoon sëñ bi nga xam ne nii loolu dangay gis ne dafa manqué ci nit te da nga ko xamee nag suñu jataay léegi da ngay gis jataay boo xam ne ni bu ñu fa toogee jataay yu murid la waaye nañ ñu may dégloo daanaka mooy doon genn wàllu waxtaan loolu ñàkk xam ni ñuy wormaale sëñ bi ak li aju ci sëñ bi ni ñu koy wormaale loolu ci la bokk maa ngi xam mag ñoo xam ne nii fii ci penku jumaa ji booba dañ fi daan jaar ak voiture ak sareet ak yu mel noonu man demukaay daal warukaay ñoom fu ñu ma sant ak fii dañuy summi seen dàll ci kaw watiir bi summi seen mbaxan léegi nag ñun ñu baree bari ñun ñu sax ñëpp koy def nag waaye xëy na loolu euh, dañu ci yóbbaale waaye kon waruma jooju ñu joxoon sëñ bi ak njàngaleem sëñ bi ak barabu sëñ bi loolu moo commencé di manqué nga gis mag ñi ñu nett na koo xam ne nii bu masaan di ñëw Touba maanaam buy dugg jëkk bi rek fa lay bàyyi ay dàll du nangoo sol dàll ci dëkk bi mbaxana waxi na am na ñoom ñoo xam sax maanaam ñu jéggal ma waaye aggoon nañ ci maanaam tuur fi dara sax ci luy jóge seen biir sax daawuñ ko nangoo def ci dëkk bi ngir wormaal dëkk war ma jooje nag loolu nga gis ne moom xëy na ak ñàkk xam la ak yar bu mel na ñàkk a mel na mu war a mel moo waral waruma jooju di commencé ndaw ñi di ko manqué ci seen digg yi nga xam ñooy symboliser sëñ bi fi mu nekk nii njëkk rek ci yaru mag ñi góor gi baatu góor gi donc ci ñun murid xëy na waxuma ñeneen nag waaye ñun murid yi baatu góor gi kenn mësu ko ñemee wax mag fii ci dëkk bi moo tax ngay gis soxna si ak sëñ bi nga daan dégg waaye léegi paa beeg maire bi danga gis ñu bari di ko jëfandikoo léegi ñu bare loolu lañ jëfandikoo ci biir dëkk bi muy yu bees yoo xam ne fi di feeñ am looy jomba def loolu lu tasaaroo la ci biir dëkk bi nga xam ne am loo xam ne da lay wóor na yow boo wéetoon yow dong itam jomb nga koo def loolu nag wuute naag li nga xam ne nii moom la ñuy gis léegi ndaw ñu baree bare léegi xamuñ xàmmeewuñ li ñu war a def ak li ñu warut def xàmmeewuñ li ñu war a wax ak li ñu warut a wax. xàmme wuñ fi war a dem ak fi ñu warata dem loolu tam ci manque éducation manque yar daf koy def ci biir ndaw ñi kerse gi nag moom kenn waxaale wu ko moom kersa maanaam rus maanaam am maanaam am kersa maanaam yu baree bare doo ko def yooyu moom kenn waxaale wu ko te yooyu kersa googu mi manque gi mi manque ci biir xale yi yaa ngi koy njëkk a xàmme ci col gi col xëy na ñu bari duñ ci bàyyi xel waaye col kersa buy deñ ci nit mi ngi tàmbalee ci col gi am na ay wet ci nit ci yaramu doomu aadama boo xam ne nii saa yoo kii say commencé nit ki commencé bàyyi gis mu commencé mu mu tàmbalee bàyyi muy feeñ xamal ne kersa ga ma ngay commencé di wàññi ko ci ñoom loolu tam ñu gis ne xale yi léegi col gi bàyyee ci ci xel lu baree bari xeetu tuba yi bu dee góor ñi xëy na dañ gën a leeral ci kanam façon tuba yi ñuy sol xeetu mbaxana yi ñuy sol xeetu yu baree bari bu dee jigéen ñi nga gis col gi léeg nga jaar ci lii wër jumaa ji gis fi ndaw lu jigéen loo xam ne nii na muy mer dalay jaaxal na muy soppee yaram wi ci wàllu xeesal ba mu weex waaye itam cëréem yi ne ci bit loolu nga xam ne maanaa boo am na ci mag ñoo xam yaakaar naa bu ñu jël siwaatu àddina gis loolu ñoom foofu la ñuy jaare delluwaat àllaaxiram ci tàng-tàng bi ndax mënuñ ko woon a wax nañ ne sëriñ son bi radiyallaahu anhu moom mas naa génn rek ci bis gis genn garab am ñaar ñi fa taxaw ndekete ku góor la ak ku jigéen moom jéemuñ xam sax ndax boroom kër la ak waaye nam daa daa dégg dagg garab gam tàng-tàng ñoom foofu lañu tolloon nga xam ne yooyu lañ daan bañ nga xam ne ñoom loolu moo doon ci daan lañ ci lañ daan yar nit ñi léegi nag loolu boo demee ba gis ne léegi xale bu jigéen da lay romb solo solo na ko neex boppam dara newut ci kaw yooyu nga di ko gis te léeg-léeg sax nga dem ci barab yoo xam ne nii yu xaw a digg lay doon ci yoon wi nga fekk fa melokaan yu mel noonu loolu dalay tegtal ne kon kerse googu mi ngi commencé di mag kon ci col gi ci doxin wi da ko ciy xam ci waxante gi ni ñuy waxante suñu biir baa di ñu jox leen suñu biir dangay gis ne kersa gi ci daan am mi ngi wàññi ku baax a baax boo gisee tey ñaari mag yi murit daanañ mën a toog fii waxtaan seen waxtaan ba mu jeex te yow boo miinut waxinu murit doo xam dara ci li ñuy wax daanaka ndax sutura sutura su bari soo xam baat yi baat yi ñuy jaar ci digg bi yëpp bariwul lool lool ndax bu nekk daañ ko warmaan te lii ñu wax nag yaakaar naa kuy faral di dugg ci demukaay yi nga xam ñëpp ñoo ko bokk ci dëkk bi moo xam saret la moo xam oto la moo xam demukaay bu mënti doon loolu moom looy dund bis bu set lay doon looy dund bis set lay doon am na ci xale yi ne ci demukaay yooyu ñoo xam wax dëgg yàlla seen melokaan jéggi na dayoo te loolu defe naa ne ñëpp a ngi koy gis di ci teg bët léeg-léeg gis koo xam ne nii jàppante koo xam mën na ko bàyyi wala maam gis koo xam mën na ko yaay wala maam def ak moom doo defalin wu doy waar woo xam lan na ci kersa du ca nekk loolu moom defe naa ne kuy dox danga nga ko gis bu fekkee nag ay ndaw nag bu fekkente ne melokaan yooyu dafa commencé dox ci seen biir li ñu waxoon léegi nag ñu bàyyi ko xel mooy ne xëy na am na ci biir ñoo xam ne nii melokaan woowu néewutoon ci ñoom waaye nag dafay commencé dugg ci dëkk bi di fi tasaaroo bu baax te buñ ci teel jël matukaay yu ñu ci war a jël dana dem ba làmbaale ñoo xam bokkuñ ci woon ndax dañuy wax ne ñax gu wow day lakk gu tooy léeg-léegi ndax jege ga ñu jege ak yàgg ga ñu yàgg moo koy waral te jikko léeg-léeg dafay wàlle surtout rawat na ndaw ak moroom ji loolu moom buñ ci bàyyiwul xel dana am looloo tax ñu koy waxtaane fu mel nii kon ndaw bu fekkente ne jikko yooyu dañ koo gis ci ñoom mënuñoo jàpp ne seen ëllëg mën naa gën a baax seen tey mënuñoo jàpp ne ñooñee ëllëg ndono li fi mag ñi bàyyi ñoom danañ ko mën a sàmm nañ ko war a mën a sàmmi ndax tey ci lañuy sukkandiku ngir tabax ëllëg ëllëg bu ñu koy tabax tey fondation ëllëg bu ñu koy tabax tey mooy doon fondation bi moo tax mënta ñàkk liggéey bu ànd ak farlu waaye itam liggéey guñ lotaabe maanaam mooy guñ nos ñu organiser liggéey maanaam yitte ji ñu organiser te farlu lool ngir mën a soppi melokaan yi nga xam gis nañu mi ngi commencé dugg ci biir ndaw ñi ci dëkk bi mënta ñàkk su fekkee bëgg nañu ëllëg seen ëllëg mën a dëppook cëslaay principe yi nga xam ne ni ci la sëñ bi tabaxee woon dëkkam bii di Touba ngir loolu mën a am nag mënta ñàkk ñu jox yitte waaye ngu ñu fokk bu baax ci former xale yi formation bu mucc ayib waaye itam fexe ba sori lépp loo xam ne nii dàqonte naag ni leen suñu borom moo ñëwoon te di leen indil ay wéradi yoo xam ne nii yenn ñi seen yaram lay doon yenn ñi nekk seenum xel kon il faut xale bi nga xam ne nii moo ci tollu tey te mag ñi war a liggéey ci ñoom am na ci yu ci mënta li ci jiitu mooy nañ fexe ba xale yi toll ci xam seen diine ñu xam seen diine waaye tam ñu ci toll ñu war leen xamal njàngaleem sëñ bi ak na mu ko doon jàngalee ak ñam ca yoroon ñu xamal leen ko waaye nag mu bañ a doon loo xam ne nii rek dañ koy mokkal di ko tari waaye du feeñ ci seen jukko du feeñ ci seen melokaan du feeñ ci seeni i joxalin du feeñ ci seen i jëflin loolu ñu fexe ba nañ leen koy jàngalee ci ay yax ñu koy mokkal ñu fexe bañ koy dund ci seeni jikko ak seeni melokaan loolu nag la ci jiitu mooy ñu koy def ci seen kanam ñu koy gis ñu koy ànd ak ñoom waaye itam ñu bàyyi leen xel ne ñoom am nañu royteef te seen royteef dëgg-dëgg mooy ti bi alayhi salaatu wasalaam kenn jiituwu ko ca waaye itam mooy mag ñu baax ñi fi newoon te doon liggéey ci luy jariñ askan wi teñ fexe bañ moytu bu baax toppandoo gu ci cim xel toppandoo gi mooy yàq ñu baree bari xale yu baree bari dañuy roy ba far dàq dañuy roy roy toppandoo toppandoo ba ñoom seen personnalité dañu dem ba dootuñ ko da ñàkk ko lañ leen doon xàmmee lépp ñu ñàkk ko loolu nag war na leen cee teel a te ku gis loolu ni muy duggee ci dëkk bi ci tubaab da gis ne bari na ay ndaje yu baree bari yoo xam ne nii buñ koy daje dañ koy jox melokaanu ne ñoom kat melokaanu murit lañ koy joxe mën nga tuddee sax tuddiir moo xam day dellu ci njàngaleem sëñ bi mën nañu wax dañuy dañuy zikkar wala yu mel noonu dañuy daja daal dañuy dañuy jàng xasida wala dañuy cant yooyu yëpp danga koy gile gi ñu ne cant la wala zikkar la wala yu mel noonu te boo demee ba ca biir boo demoon ba ca biir jataay ba gis na muy doxe da nga xam ne loole ay fiir la yoo xam ne nii seytaane moo ko fiir ngir ngir ngir napp ci yenn ci waxambaane léeg dem barabu sikkar boo xam ne nii da nga yéemu ci yàlla ay ndaw yu góor ak ay ndaw yu jigéen ñoo koy séq te pecc meeg yooyu moom dañuy fecc ba ñaqutoo xëpp maanaam ak sax yeneen yoo xam ne ni mi ngi ci biir te loolu xëy na ñoom ñàkk xam na loolu dañ leen cee war a yee bañ xam ko xam xam zikkar mooy lan ak nuñ koy defee loolu lépp ñu xam xam ne tam nit mën na cee jaare ba def ci ay pexeem ba dugal leen ci beneen gaam boo xam ne ni bokk dëgg leneen leen taxoon a jóg cant yi danga ko ciy gis léegi am na lu xew loo xam mi ngi ci dëkk bi ñu di ko gis ay xale yoo xam dañuy yor ay bool di wër ni xale yu jigéen yor ay bool di wër ne dañuy màjjaal ngir dañoo amuk cant te koo ca gis na muy mel ak fa muy tolloog yooyu yëpp ay danse la yoo xam ne nii seytaan da ci jaar di dugg ci biir te yëpp buñ koy dañ koy dañ koy solol mbubb moo xam ne nii dañ koy solol mbubb moo xam ne nii maanaa mbubbum ma mbubbum njàngalem sëñ bi lay doon mën naa am mbubbum lay doon waaye boo duggee ba ca biir moom lay ne ca biir leneen la lay jox xam naa du bari lu muy am nag waaye am na ci loo xam moom dañ man dama koo dund xëy na du bari lu am nag moom damaa mas a gis mag moo xam ne nii xale bu góor ak bu jigéen danoo mas a jote ci këram ba naka su dul noonu am ca bañ leen wooyee ne leen waaw lii moom fu kañ la am ñu ne ko bisu màgg bis bañ doon màggal nangam guddi ga ci la yooyu dafay am ci biir kii xëy na nag du bari waaye yëpp ay ay mbir mbir la fokk ñu di ko waxtaane ngir gën a mën a nos mbir mi mu gën a tegu ci yoon ndax yooyu ay fiir la yoo xam ni kon il faut que ñu xam ne kon ñoom seen royteef nii la te itam nii lañ daan doxale te it ñu xàmmee ne toppandoo maanaam li muy leen di mën a jural ak fiir yi nga xam ne nii ay nit a ngi koy jaar ci biir leen ci fiir ngir napp leen war na noo fexe tam ba xale yi itam ñu sàmmonteeg ku nekk na la yàlla binde mooñe la noonu góor nga yàlla dafa laa jox bindub góor jox la melokaanu góor góor am nu mu war a doxe jigéen la sunu borom da koo bind bindu jigéen am melokaanu jigéen am nu mu war a doxee loolu nag da gis ne booy xool xale yi ci dëkk bi da ngay gis ne soppax nag bu mag a mag mi ngi ciy dugg xay nag bari na bunt yi muy jaar di fi dugg waaye moom mi ngi fiy commencé dugg da ngay gis xale bu góor boo xam day létt boppam mees waxuma rasta de mees la ko maanaam njañ waxuma njañ waaye da koy rasta mees ko mu wàcc nga xam da ngay dem jënd eh, mees mi jigéen ñi mees ba loolu ñu seen kawar yi moom ngay jël dem ñu létt la létt yi daan sa gannaaw loolu ñu ngi koy gis ci biir dëkk bi danañ ñu gis xale bu góor boo xam ne nii cool gi muy sol couleur bi ci boppam couleur yi couleur jigéen la ndax ku nekk xam ne dafa am couleur dafa am melo couleur yoo xam ne nii colub jigéen la ak couleur yoo ne colub góor am na façon ay tubay yoo xam ne nii ku nekk xam ne tubay jigéen la mais góor ñi léegi dañ koy sol lu seer na tàpp sa yaram loolu même tubaab yi nga xam ñun sax du suñ suñ suñ aada suñ cosaan waaye tubaab yi koy jëfandikoo sax ñoom loolu pour ñoom ci ñoom tollu jigéen la te loolu nga gis ne mi ngi commencé di tasaaroo ci ci xale li ci gën a yéeme nag moom xëy na euh, moom mooy loolu ñu gën a xewal mooy wàcce tubéy ji loolu fi la xew maanaam ci la yàqu ma ne góor dafa am nu yàlla bind noo xam ne nii njekkikaayu góor góor dëgg-dëgg mësta bëgg ko gis njekkikaayam léegi nag bu ñu demee ba xale bi du yem ci kii waaye day ruggitu ba yem ba nga xam yow da ngay jàkkaarloog njëkkaay loolu la yàqu gu mag a mag te mi ngi dugg ci lépp mi ngi suñu biir ñu koy gis ci biir xale yi ci dëkk bi muy gën di tasaaroo muy loo xam ne dafa liggéey bu mag a mag la laaj ñu war cee jublu euh, fàttaliku naa ci ay jamono ci fii ci dëkk bi xaw naa am at soxna soo xam ne nii daa soloon pantalon dugg ci dugg ci voiture boobu ñu nekk ay tutànk dañ koo topp di ko yooxoo mu nekkoon lu raar ci dëkk bi loo xam daanaka kenn mës koo xam ci dëkk bi léegi nag léegi gis ay soxna yoo xam ne nii tubéy yooyu lañuy ñuy ànd la sol di di doxantoo moom loolu di melokaan yoo xam ne ni mi ngi dugg loolu xëy na ca ñam ñami seen aada ak seen mën na faa bañ a jafe-jafe waaye ñun ci suñu aada ak suñu cosaan dafa dëppoo wut ak loolu te loolu dafay tegtale góor guy soppi ay melokaanam walla jigéen guy soppi ay melokaanam nga gis watif yi ñuy watif léegi. moom it soppi melokaan ci la bokk te moom it mu fi gën di bari yooyu yëpp di am ci barab bi wuute nag ni sëñ bi jàngale woon ci dëkk bi te muy jaar ci ndaw ñi di gën di tasaaroo kon foofu itam fokk ñu fexe ba xale yi xam ne ku nekk na la yàlla bindee mooñe la ko nga sàmmoonteeg moom dafa bokk ci yëf yi waaye tam ñu fexe bañ moytu xalaat yi nga xam ne nii day màbb donte la ca kaw mën naa nuru luy defar moo tax balaa ñoo nangu benn xalaat war nañ koo jël ñoom dem laaj ña leen ci ëpp xam-xam di boroomi xam-xam di ay gëstukat balaa ñoo dugg ci fiir goo xam ne nii dootuñ ca mën a génn xam ngeen ne léegi dafa bokk jumtukaay yi ñu jëfandikoo booy wootee ay caaxaan da ngay fexe ba taaral ko ba ba muy xëcc xam nga ndaw lu ko xëcc ci fànn yi dafa yomb bu ko defee boo ko taarale am na koy taaralee xëcc ko dafa yomb tey bari na ay ndaw ay xale yoo xam ne nii lang nañ fi barab te dañ faa lang waaye bëggatuñ fa dara waaye nañoo ne ba mënatuñ faa génn loolu léeg-léeg bu joxe misaal dañ jox wax na misaal ne la am na ñoo xam ñi ngi mel ne ndab bool bool su ne dafa tilim ñuul kukk nga jël lekk gu baax def ko ci biir am na nit ñoo xam noonu lañ mel am na ñoo xam bool lañ waaye bool yu taq lañ nag waaye nag dañoo fexe ba jël lekk gu neex gu sel def ko ci bool bi bu ko defee woolo nag nga ñëw tiim di lekk booy lekk nag léegi boo teewee bàyyi bu yàggee da ngay gis tilim tilimi bool bi mu taq rib boobaa nag ñaari mbir rek ma fa bëgg ma fa sës benn da nga bëgg a wàcc te doo mën a wàcc benn da nga bëgg a jóg te doo mën a jóg wala yu mel bu ko defee nga nga nga nga lang fa nag loolu moo daan ñu baree bari xale yu baree bari dem nañ ba gis ne fañ doon jàpp ne lu baax lañ fa doon wut gis nañu nekkate la fa nekk bokkut ak lañ fa doon wut waaye nag àgg nañ fa foo xam ne nii mënatuñ faa jóge ñu farfallan loolu tam ñu koy teel moytu bu ko defee tam kilifa yi itam te mooy wajur yi ñi nga xam ñoom tam ku nekk ci yow def loo man ci former sa ndaw ba mu am lu mu jàpp ci wàllu liggéey waaye tam waxtaan yu mel nii ñu def yeetante ci ay ay jàng waxtaan yeetante loolu itam xëy na mën na caa mën na caa am solo waaye itam yittewoo wàllu eh, jumtukaay yu xarala yi ak xam ni mu mën a bàyyee jeexit ci ndaw ñi loolu itam defe naa ne loolu moom du jar guddal ñu baree bari xam nañ ko mën nañ cee jaar ba yee xale yu baree bari waaye itam soppi seenu giseen ci dund gi ñu xam dund gi mooy lan ñoom lan leen lan lu leen fi indi ak lu leen fi bàyyi xëy na am na bu ci am solo loolu nag mooy itam yàqu-yàqu boo xam ne itam am na la ko mën a saafara bokk na ci ñu fexe ba ñi toll ci am soxna wala ñu tollu ci sëy loola yomb ba ñi ko war a soxla woo mën a am loole loola mën a yomb ci ñoom loolu itam dana ci bokk waaye nag dara ëpp ci solo nag di leen déglu déglu xale yi ñuy wax seeni problème ci bopp ñu koy dégge ci ñoom seeni xemmemteef ak seeni yaakaar ak seeni gisin ñu fexe ba di ko déggee ci ñoom di ko bàyyi xel loolu danañ ci dimbale kon nag yooyu ay yenn la ci yi nga xam jafe-jafe la yoo xam ne nii mi ngi ci mbir mi ñu koy gis ñu jàppin ne ngir ëllëg xale yi mën a am melokaan bi ñu bëgg ci ñoom ëllëg te it mën a sàmm ndono li nga xam moom la ñu war a bàyyi ëllëg jàpp nañu yooyu mënu cee ñàkk waaye itam jàpp nañu liggéey boobu mënu jee ñàkk ngir ñu def waaye nag jafe-jafe bu fu manti doon tam pour ñu régler ko il faut que ñu fixer ay responsabilité maanaam mbir mi demee nii kan kan ñoo ci am responsabilité tey bu ñu nee xale yi ci dëkk bi bari na ñoo xam ne nii ak nii ak nii lañ mel te dëppawut ak ni ko sëñ bi bëggee woon kan mooy responsable ci melokaan woowu xëy na loolu bu ñu ko bëggoon waxtaanee mën nañu tudd ay fànn yu bari ñu baree bari ñoo xam mën naa am am nañ ci ay responsabilité waaye nag ña ci jiitu mooy way juru ñooñee seeni waajur yi leen jur seeni ndey ak seeni baay kenn jiituwu leen ci moom dëgg la am na ci xale yoo xam dañoo rëcc seeni waajur nekkatuñ ci genn kilifteef am na fii ci dëkk bi barab boo xam ba fa demoon tey ay ndawang fa groupé wu ñoo xam ne kenn xamul seen i seen i seen i baay ay ak njubari dong lañ fay def barab la barab la barab la yoo xam ne nii xam nañ ko ci dëkk bi mi ngi ci biir dëkk bi barab yoo boo fa demee ay ndaw nga fay yoo xam kenn xamul seen ndey kenn xamul seen baay te ak lañ fa nekk xëy na loolu am na kon xëy na am na ñoo xam ne xëyewuñ kër seen seen kër ndey ak seen kër baay waaye nag ñi ci ëpp moom seeni i kër ndey ak seen i kër baay fa la ñuy kii xëyee ci kër ndey ma kër baayam nag baayam ak yaayam ñoo am warteef wu gàll seen loos ci saa yu ñu xëyee xool seen melokaanu doom ndax ay soppi commencé wu dugg bu ci ay soppi commencé dugg ñoom ñooy ñu war a njëkk jël seen i matukaay balaa caa kenn fekk kon waajur yi ñoom ñooy responsable bu njëkk ci mbir yi ndax ñoom ñoo dem ba seen melokaanu xale yooyu day mel ni joxatuñ ko yitte diñ ko war a jox waaye yëmuñ ci nag fas ko yéenee jiñ ñeneen ñoo xam ne nii xëy na am nañ cee responsabilité waaye ñoo ñoom ñoo ko bokk te nga dégg ñu ko ñu koy jëñ barabi jàngukaay daara yeeg école yeeg yu mel noonu naan yaratuñ jàng nangam nangam léeg-léeg ñu leen koy jëñ léeg sax ñu koy jëñ service naan service ñoo defut lu war a def léeg-léeg ñu jëñ ko ab gouvernement wala yu mel noonu waaye ku nekk yaa ngi jéem a raxas sa loxo ba mu set dégager sa responsabilité jàpp ne mu jël waaye ñoom kenn jiituwu leen ci ndax ku nekk xam na ne bokk na ci xiste yi seew yi siiw ki ñëwoon ci yonente bi ne ko yorub xale ba ne ko bëgg nga yaral ma sama doom ji ku nekk xam na xista bi ak la ko ci yonent bi wax ak fa jaar ak moom ba yonent bi nekkoon ko nag yar moom mu ngi tàmbalee ci balaa xale bee juddu tàmbalee ko ci way juróom wu jigéen ba nga koy tànn wala way juróom wu góor ba ñu koy tànn ñu teg ko ci tànneef yi nga xam ne ñu ko war a tànnee foofa la yar bay tàmbalee loolu nag xëy na dafa bokk ci li manqué ci njàngaleem seen jamono ji ñu toll nii ñu bare bare bàyyee duñ ko xel waaye li ñu xamoon ci mag ñi ci toppoon sëñ bi ak ñi toppoon ñi toppoon sëñ bi ak mag ñi mu joxam ñëpp mooy ku ci masaan am doom bu dee góor bu demee ba war a toll ci am soxna dangay ngay dem sa kilifa sëb sëriñ nga ne ko diwang ca kër ga toll na ci samp kër bu dee jigéen itam bu demee ba war a dem kër da ngay dem ci sëb sëriñ nga ne ko maanaam xale sàngam mu ngi ci kër ga tollu na ci dem kër bu ko defee sëriñ mooy jékki-jékki xool ne diw ak diw war nañu ànd mu jël leen boole leen bu ko defee sëy boobee mënees na caa séntu barke xale bi ci juddoot ci xalem ndigal lay doon waaye léegi nag li am mooy danga am si amub sëriñ sax waaye da ngay dem dañuy dox ngoro gi ba mu mat sëkk ba mayee doo nga des ñëw na sëñ bi mayel wala boog jàppal ñu bis foofa kon am na lu ñu bàyyi ci liggéey bi loolu tam am na lu mu jur mooy fekkente ne xale bi nga xam dafa judd ci ndigal moom mu dégg ndigal du ko jafe xale bi judd ci yar tam ñu yar ko mën naa am du jafe loolu kon waajur yu bare ba dañoo démissionné dañoo dem ba seen responsabilité parentale bi nga amoon nañ ko dañoo dem ba mel ne dañ koo bàyyi gannaaw dañoo dem ba mel ne dañoo fàtte ne am na àq ak yelleef yoo xam ne nii ñun ñii di ay waajur lislaam dañu koo gàll ci sunu loos mu war a dox suñu diggante ak njaboot gi te waajur bu nekk war koo xam te war caa def loo man nag ngir sàmm ko bu dul loolu nag lu man xew ëllëg bul yedd kenn booy yedd yeddal sa bopp waxoon nañ ko léegi bokk nañ ak yooyu xale bi nga tànnal ko waajur wu mel na war a mel waaye itam nañ koy wooyee nga ciy bàyyi xel ndax tur xëy na amul relation sax ak li ñu tudd waaye nag léeg-léegi xale bi li répété ci ay noppam mu koy dégg bu yàggee mën naa bàyyi jeex ci moom moo tax tur wi nañ koy wooye bu fekkente ne dëppoo tur wu mel na mu war a mel war nga koo mën a daal di soppi ñu koy wooyee nañ ko war a wooye ndax donte ñoom ñaar mën nañoo bañ a lënk lool lool waaye dégg gi mu koy dégg ci boppam bu yàggee mën naa dem ba jur ci moom ndax xam ngeen ne baat yi ngeen ñi faral di dégg nii baat yooyu bu yàggee day soppi lu baree bari te ay baat lay yu bees yoo xam ne dañ koy fent xëy na loolu luy dugg ci biir waxtaan la waaye day koy koy gën a leeral xam ngeen ay jamono ci gannaaw ñëwoon na fi ñu créé woon fi baat bees tudde woon ko bul faale baatu bul faale boobu boobu ñu bari bàyyi woon ci xel waaye ma ngay door a feeñ jamono ñu toll nag mooy nit ñoo xam ne xale yoo xam faale duñ dara du nay du bàyyi du jikko du yenn loolu baat yooyu ñuy faral di dégg bu yàggee day feeñ ci melokaan naka noonu tam tur waaye itam waajur wu nekk war a bàyyi xel ci ne nag boo demee ba am doom yaa xam bàyyi nga yaa xam yaay nga dangaa war a bàyyi xel nag léegi am na ku leen ñetteel ci kër gi kon nag na ngeen daan waxee mën naa am sañatu leen ko fekkee daa ngeen waxee noo xam ne nii seen diggante la woon yéen ñaar bu fekkee da ngeen daan xuloo ak a jàppante jàpp leen ne sañatu leen ko su fekkente ne da ngeen daan joxalante ay kàddu yu ñaaw jàpp na ne leen ko ndax léegi dafa am ku ne seen kanam te kooku day copier ci yéen loolu waajur dañ ko war a bàyyi xel te loolu ñu bare ba ko bàyyi xel am na bis ma toog ci benn jataay soxna su ñëw ànd ak doom ji doom ji am na lu doom ji def léegi am na lu mu def daal ba dagg saaga daal xale bi am na lu mu def daal ba ba saaga léegi yaay ji daal koy daggal saaga ne ko doo bàyyi saaga ma ne ko dee du ko bàyyi ndax yaa ngi koy saaga kon baat yooyu maanaam doom moom doom moom ci papa ji rek ci bàyyi bi rek ci lay yi moo tax xale bu xasee juddu ci kër kon dañoo war a bàyyi xel nekkatu ñun ñaar rek waaye nag am na gan gu ñëw ci kër gi te dañ ko war a bàyyi xel ci ne ëllëg na muy mel sunu responsabilité lay doon teel leen a tàggat ci ñu xam ne am na ay ndigal yoo xam ne nii sunu borom moo ñu ko digal yonent bi jot li ñu ko sëñ Tuubaa ñëw fàttali ñu ko ndigal yooyu dañ ko war a sàmmanteeg moom waruñ koo xëtt lu mel ne joxe faratee sunu borom ak yu mel noonu moo tax yonent doon jàngale bi yàgg na ngeen leen bu ñu amee juróom-ñaari at war ngeen leen digal ñu commencé di julli bu ñu amee fukki at war ngeen leen cee gën a xiirtal bu sax léeg-léeg ngeen xupp leen ngeen xupp leen nag am lu mu ca am solo mooy buñ bokkati lal bu ñuy tëdd bu fekkee mën naa nekk loolu na góoru jigéen a ci yem fi mu nekk nii ay jigéen buñ ko mënee waruñoo bokk ñaari jigéen waruñoo bokk benn lal seen yaram di jonjoo bu dee ay góor bu dee ñaari góor bu fekkee mën nañ ko waruñoo bokk benn lal seen yaram di jonjoo ndax jonjoo yooyu seen yaram di jonjoo bari na yàqu-yàqu yu judd ci gannaaw bi te foofu lay juddoo yoo xam ne xëy na buñ ko junjee noonu dañ ko xam kon lu am solo yéen di waxoon ko bu yàgg-yàgg te xam-xam saxal léegi ne loolu bari na am na yàqu-yàqu yoo xam ne nii ma ngi judd ci diggante ñaar ñooñu te seen yaram yooyu di jonjoo fa lay tàmbalee kon tàqal leen ci tëruwaay loolu wax nañ ko ci fexe tam ba seen wér-gi-yaram ñu leen koy sàmmal moo xam yaram wi la moo xam xel mi la lépp loo xam day muur seenum xel ñu teel leen cee yee moo xam nag baat la bu ñuy wax moo xam la mbir la mu ñuy jëfandikoo lépp loo xam day yàq seen wér-gi-yaram itam ñu teel leen ko xam moo xam lu ñuy naan la moo xam lu ñuy lekk la moom itam ñu teel leen ko wax ñu teel ko jëfandikoo waaye bokk na ci li ci am solo tam nag mooy ñu bàyyi xel ci ne xale du buntu wërsëg fii ne ñun ñu baree bare jàpp ne boo xasee amul njaboot rek sa buntu wërsëg ubbiku na de moo tax bun loolu la jàpp ne buntu wërsëg moo tax leneen gis koo xam ne nii da leen di teel a liggéeyloo te seen liggéey du jot moo jur li ñu doon wax léegi ci yenn yi am ci dëkk bi ci yenn xale yi mooy xale boo xam ne ni ci jàng dong la toll wala ci yar doo la toll yaruñu ko jàngaluñ ko ba noppi na ko demal wuti métier kooka bu màggee kenn mënta séentu ci moom mu mel na war a mel te loolu wajur yi bare ba dañ ci bàyyi xel fii da ngay gis xale boo xam ne ni fukki atam matagul nga gis ko mu yor dara moo xam sareet la moo xam ma nga ci garage ba di kii di jàng métier te ko ku ne xam na ne foofu mënu faa liggéey lu koy jariñ mënu faa liggéey luy jariñ waajuram waaye nag comme ñoom dañoo jàpp ne euh, doom yi yaa leen moom te da leen war a jariñoo ci lu lay jariñ moo tax ñuy doxale noonu doom yi moomuñu leen ndénkaan lañ ci suñuy loxo ñu alal joo xam dañu ne moom waaye dañu ñoo dénk te ëllëg dañuy laaj fu ñu jaar ak ñoom <coughs> xëy na am na loo xam tam danay am ci biir kër yi te léeg-léeg muy jur xale yi fipp di dem ñu leen di tuddee xale yoo xam xale yi mbedd mi bokk na ci loolu léeg ay xale yi bokk na ci kër bokk baay wala ñu bokk yu mel noonu te seeni waajur yamalewuñ leen ndax ay sabab yu baree bari ñàkk yamale googu dana tax xale bi xëy féttéerlu dem ci mbedd mi taxawaalu fu ko neex yoon fu ko neex fanaan bu yàggee mu bokk ci xale yi nga xam ay délinquant lañuy ñuy doon am na ñoo xam tam léeg-léegi euh, da ngay judd mel nii rek ñu sikki sàkk ci sag askanoo ci ñoom di ko waxee di ko jëfe ba nga ba xale bi xam ko ci ñoom dana waral xale bi xëy xëy moom itam fépp dem nekk ci mbedd mi ba mujj nekkub délinquant yooyu ay njuumte la yoo xam ne nii day dal waajur yu baree bare waaye itam waajur wax mu day ci kër gi ne kër gi moom benn tubéy fi nekk maa koy takk kenn du faxe kenn du fi defe lépp maa koy def maay wax loolu tamit dana tax léeg-léeg xale bu tolloo fee te xamoo ko dana tax moom mu jékki-jékki fetteerlu dem ci mbedd mi bu yàggee mu bokk ci xale yi nga xam ay la ñu doon bari na xale yoo xam yaa leen gis ci mbedd boo leen enquête doon dëgg dëgg dëgg la leen tax a nekk ay délinquant di taxawal ci mbedd mi di agressé nit ñi di sonal nit ñi la ëpp seeni waajur dañ ci am taxawaay bu am sëkk bu mat sëkk sëkk kon dafay mel ne li ëpp ci maanaam melokaanu xale yi ñuy jàmbat jamono ji li ci mi ngi jóge ci ñàkk gu ñu ñàkk sàmmanteeg orientation yi nga xam ne nii lislaam jàngale na ko waaye itam sëñ bi fàttali nañu ko ci barab yu baree bari kon li dañuy jàmbale lépp foofu lay jóge kon nag ñu ñëpp ñu war a gën a farluwaat gën a yokkaat suñu taxawaay ba responsable bi nekk suñuy loxo ñu gën koo mën a gàddu ci gën jaarafit anam waaye itam gën a fexe ba barabu liggéeyukaay yi wala boog barabu jàngulu jàngukaay yu mel na mu war a mel ci lim ba mu war a mat mat na mu war a mat ñu fexe ba mu gën a tasaaroo ci dëkk bi fexe tam ba barabi liggéeyukaay yi ñu gën a tasaaroo ci dëkk bi loolu nag ñu ngi koy jaaree ci formation professionnelle maanaam xale yi ñu ñu tàggal leen ci ay métiers yoo xam bu ñu ca àggee te war ko bu ak jot ñoom ñu tàggal ci ay métiers yoo xam ne nii dañ leen mën a jariñ waaye itam fexe ba dëkk bi ñu wut fi ay barab yoo xam ne nii xale yi dañ fa mën di jeexal seen waxtu wi des ci seen waxtu te jëfandikoo wuñ ko ci liggéey wala ci jàng lu mel ne ay bibliothèque yoo xam ne dañ fay mën a toog lu mel ni yenn club yi nga xam ne nii dañ fay def yenn activités yi ci wàllu xel waaye itam amaat taxaw seetlu ci wàllum tàggat yaram ci dëkk bi loolu moom il faut que yaakaar naa ne mënta ñàkk ñu bokk toog def ci waxtaan ndax ubbee woon nañ ko waxtaanee xale yi am nañ énergie bu des gannaaw bu ñu defee lañu ñu war def lu baree bari lépp def nañ ko dañuy des énergie bu baree bari énergie boobu ñu desee nag. niñ ko waxee woon léegi bu ñu leen wutul fu ñu koy dépensé danañu wuti feneen fu ñu koy dépensé ji mooy waral nga gis fii saa yoo xëyee gis fii ñaari oto wala ñetti oto yoo xam dañuy sëf ba sëf ci kaw fu ñu jëm beneen dëkk bu ne ci wetu dëkk bi lu ñu wuti mooy tàggat seen yaram lu ñu wuti te bu ñu fa demee dañ fa gis ay melokaan yoo xam gisuñ ko woon fii mën nañ faa jëfandikoo loo xam bañ nekkee Tuubaa amuñu woon sañ-sañ jëfandikoo ko kon bàyyi gi leen bàyyi ñuy dem foofa di ko fa defi fexe woon ba am nuñ ko nose organiser ko ci biir dëkk bi noo xam ne nii xëy na dana fi mën di dem te du wuuteeg njàngaleem sëñ bi loolu defe naa ne mënu cee ñàkk kon wutal leen fu ñu koy def mënta ñàkk su dul loolu nag eh, liñ ciy jàmbat mu saafaroo ci dana yeex loolu kon sas loolu mooy li ñu bëggoon a tënk ci waxtaan wi dellu nag di gën a fettaliwaat nag ne xëy na lii bu ñu koy waxtaanee mooy luy commencé dugg ci dëkk bi teñ bañ mu tasaaroo ci mooy solos waxtaan wi kon xëy na ña meloon nañ war a mel ñoom ña ngi koy mel waaye nag ñii wàll si tey dugg te indaale jikko yu bees yooyu buñ ci waxul mën nañoo dem ba wàll ñooñu te loolu mooy jur li nga xam moom la ñëpp di daw di ko bañ mu am ci dëkk bi euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ngi dellu di santaat bu baax a baax sëriñ Fallou Bousso ci waxtaan wi ci waxtaan wu am solo wi wax dëgg yàlla. waxtaan wi képp koo xamante ne teewlu nga ko rek jële nga ci ay njariñ yu baree baree bari xam naa gàtt rek lañ ciy jàmbat waaye wax dëgg yàlla waxtaan wu fees dell la ak i njariñ kon ñu koy santaat bu baax a baax di ñaan sunu boroom kàttanal ko yokk wér gi yokk mën-mën gi yokk xam-xam bi ba mbokki jullit yi mbokki taalib yi di gën a mën a jariñoo ci xam-xamam bi kon ci waxtaan wi bu am solo bi mu doon waxtaan ak ñun te mooy ndawi dëkk bi seen tolluwaay ak seen ëllëg ci commencement bi rek sëriñ bi fàttali nañu importance bi nga xam ne ndaw am na ko te loolu histoire wone ko tàmbalee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax la ko jiitu wàcce ko ci ba ci cheikhul xadim ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko fi wuutu ci ginnaawam lépp di wone ne ndaw lu am solo la ci avancement ab société waaye ci développement ab dëkk muy marxala boo xam ne muy marxala bi dox ci diggante li ñuy wax ak xale ak mag ndax mel ne comme ni mu ko waxee ci maraaxil yi nga xam ne doomu aadama li ciy jaar muy jóge ci xale ak ya ci am bu jógee foofu day ñëw ci ak sabab bu jógee foofu ak màggat mën nañ ne moom moo ciy toppaat kon mar mooy marxala bi nga xamante ne moom moo jaar ci diggante bi bi marxala boo xamante ne bi tamit day soxla ay mbir yu baree bare bu ci nit ki tolloo yu baree bare la moo xam ci yaramam waaye tamit moo xam i tamit ci biiram muy xel mi muy xalaat bi muy cawarte bi muy énergie bi lépp dañuy gis ne dafay dakoy koy lam cey soxla day bari lool euh, loolu nag mu joxe ay exemple tamit ni nga xamante ne moom ni ko noonu la ko sëñ bi moom noonu la sëñ bi investire ci soxla yooyu nga xamante ne moom ndaw da koy soxla mën ñu mën koo tënk rek ci sëñ bi moom méthode bi nga xam ne moom la doon jëflanteeg ñoom muy li ñu tuddee non violence bañ a forcer bañ a jaay doole ndax kenn ku ne xam na ne ndaw ci jamono yooyu pour mu défier nit day yomb ndax yëg li mu yëg ci biiram ci wàllu énergie ci wàllu mën-mën nga xam ne boppam la yëg yëgatul keneen mu bokk nag ci xikma bokk nag ci mën a jëflante ak ñoom nag ngay jëflante ñoom bil xikma wal mawisati al xasana waaye tamit surtout nag nga jëflanteek ñoom itam li ñuy wax at tarbiya bil qudwa nga doon royukaay ñu lay xool pour mën a copier ci yow euh, mu ñëw ak ñu ne tamit ci ndawi dëkk bi tey euh, loolu nag bu ñu doon tënk tamit day mel ne waaxe la boo xamante ne moom waaxe bu xaw a raglu la bu xaw a bu xamante ne moom képp ku ko xool jàngat ko dangay ngay tiit ndax li ci comme ni ko ñu ëpp di seetloo mooy li ñu tuddee benn infijaar mën nañ ko tuddee infijaar démographie bu mag moo ci am wax dëgg yàlla ku xool dëkk bi dangay gis ne waxa da nga gis waxambaane yi mën na ni ñoom ñoo fi ëpp ci foo dem nag loolu nag comme ni ko yenn boroom xam-xam yi di waxee loolu moom atul la waroon a doon ndax loolu moom ab capital la boo xam ne ku ko am danga kaa war a danga kaa war a sante sunu boroom waaye maal asaf la mu war a àndal moom la àndalut ndax capital la boo xam ne boo ko amee mu ànd ak li mu war a àndal suñ dee lim réew yi nekk ci kanam buñ tuddee ku leen tudd dana la tuddaale waaye nag su fekkee nag la mu war a àndal dafa manqué mooy yar ba mooy xam-xam ba mooy toppatoo ga mooy wér maanaam lépp maanaam wér ci biir wér ci ci xel ci yaram ci lépp bu fekkee yooyu yëpp dafa manqué wax dëgg yàlla si boobu boobaa capital boobu dootul amati solo loolu nag day mel ne moom la ñu seetlu fii muy ñàkk yar boo xamante ne moom foo ko takk wees na ko sëñ bi junne ko duñu ne ko ci biir waxtaan yi fi muy gën a fëse mooy ci barabu demuwaay yi transport bi la gën a fëse boo génnee fii rek yaakaar naa ñu bari ci ñun tey boo jógee fii di dellu kër ga da ngay jànkoonteeg yu mel noonu muy ay jafe-jafe yu metti tamit boo jëmee tamit ci barab yi nga xam ne moom fa la ñuy yaxantoo ci marché yi zalika loolu tamit moom ngay seetlu foofu mu doon loo xamante ne bi nag mbir mu mbir mu jafe-jafe la léegi nag euh, loolu nag dañ ko war a bu dee dañoo jëm ci ëllëg mën nañoo xoolaat sunu bopp xoolaat sunu doxalin ngir loolu man fee jóge su ko defee ñu am ay ndaw yoo xamante ne bi ndaw yu yaakaaru la ñu nekk ndaw lañ yoo xamante ne bi bu ëllëgee duñu mujjee puso bi mu réer ci seeni loxo loolu nag du leen lu dut kenn ku ne jël say responsabilité sa masulaat yi nga xamante ne moom nga am nga jëlaat ko doxewaat ci ni ngi ci war a doxee te kenn jiituwu ci parent yi kenn jiituwu ci waajur yi maanaam xam ne doom bii nii ndénkaan la daa am lu ci suñu borom sant te ëllëg dala koy laaj kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi waaye sëñ bi tudd benn tomb boo xamante ne bu mat a bàyyi xel tamit mu di lan mu di waajur yu baree bare te yaakaar naa mooy sax mooy jafe-jafe bi ci ëpp mooy xale niñ ko jàppee maanaam doom daal dañoo jàpp ne bu ko nit amee rek léegi moom macha allah xale bi daal bu amee fukki at ak lu ca topp rek moom jàpp na ne xale bi léegi daa war di liggéeyal di ko jox maanaam loolu ni ko def sunu bopp yi mooy waral njàng yi du àgg xale bu ñu ko dugalee daara balaa balaa mu fay am dara ñu ne naa ko génne ci daara ji ndax kat léegi mat naa liggéey loolu nag jafe-jafe la boo xamante ne muy tamit école bu fu demee du fa yàgg fenn fu mu dem moom daal yàkkamti nañ yàkkamti nañ xale bi mën dara bañ jox ko dara ngir muy liggéey loolu nag muy ab jafe boo xamante ne mooy tamit waris na ko waris na ko xoolaat waaye fi nga xamante ne fi la daanale tamit mooy Euh, li ñu tuddee li nga xam taaqa bi nga xamante ne moom énergie bi nga xamante ne bi ndaw yi am nañ ko te mu doon bu des am fu ñu ko war a mën a euh, fu ko war a mën a joxe ginnaaw bi ñu defee seen yi ñu war a def yépp te muy li ci gën a fës di mooy sport loolu tamit waras na cee xoolaat bu baax a baax ndax taaxa boobu moo waral fi ñu toll nii ndaw ñi ku leen woo maanaam saa boo gis ku woote ku woote ak lu mën di woo fi ñu toll nii ndaw ñi ñoo fay fees dell parce que defuñu dara ya sawar nañ yàkkamti nañ ku woote ñoom ñoo lay wuyu boo gaaree mën nañ koo joxe exemple rek bu dee ñi xam ne ñoom ñoo yëngutu ci wàllu politique bi ku gaaree say kaar ndaw yi ñoom ñoo koy fees ñoo koy duy ba mu fees dell moo xam da nga leen jox dara moo xam joxu leen dara yow wax leen ay wax yu neex rek parce que ñoom sawar nañ am nañ jot gi loolu nag euh, jar nañoo jar naa bàyyiwaat xel bu baax a baax kon sëñ bi ñu ngi lay santaar bu baax a baax ci waxtaan wi wax dëgg yàlla jëriñ nañ ci bu baax a baax a baax su ko defee xam naa xam naa dañuy jox sunu oustaz rek sëriñ Moussa Ndoye mooy tamit am ay commentaires yoo xamante ne bii moom la ciy def kon euh, bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih mawlana cheikh alxadim wa sallama tasliman kathira mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara eh, di leen balwaq eh, xam naa lu mënti ñàkk ñuy wax kon ci turu daara ji ak eh, Serigne Moustapha Eh, xam naa xat-xati jamono waaye waroon naa teew ci jataay bi ñu ngi koy séntu ba tey eh, kàddu cant la ak ngërëm laata ñuy commentaire sant sëriñ oustaz cheikh Mouhamadul Fadil yàlla na yàlla yàggal jataay bi te mu ànd ak wér mu yàgg koo jooxe yàlla yokk xam-xam bi te mu ànd ak xelam eh, conférence bi waroon naa mën a waaye comme mi ngi ci wasail ilaam yi dina siiw waaye waroon naa mën a nekk fu ne war nañ ko mën a waxtaane muy tomb boo xam ne dafa wara a itteel murit gi yépp ñu di ko waxtaani ci jumaa yi di ko waxtaani ci jataayi xam-xam yi di ko waxtaani ci fépp ndax moo doon doonoon responsabilité boroom kër moo doon doonoon responsabilité bu jàngale kon ñaari responsabilité yooyu ñoo gën a fort te feeñ na ci jataay bi feeñ na ci waxtaan wi moo tax bu nee responsabilité bi eh, responsabilité partagée la ci ñëpp la rawatina jur way jur moom mooy ki nga xam ne moo gàddu responsabilité bi ci gën a rëy ndax way jur la yàlla def mu war a taxawu jigéen eh, war a tànn soxna war a jur ak njaboot njaboot googu mu di ko saytu ci man-man yi ci xeeti man-man yooyu mu tudd yépp saytu ko ci wér-gi-yaramam saytu ko ci xam-xamam saytu ko ci man-man capacité yi muy des ci mboolem énergie yi loolu way jur la ko yàlla la ko yàlla teg te loolu mu bindal ko ci tuyaabu jur rëy rëy ndax dara gënu cee rëy su fekkee ne maanaam dem na ba nangu responsabilité yooyu gàddu ko bu jëlee doom ji yóbbu ci daara sëriñ bi nee na bu nee bismillah yu bindal ko ak mucc ci safara waxiduma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktubu lahu laliyu wa walidayhi wa li muallimihi yi min naarihi faltaxnami kon loolu mooy responsabilité bi e, doom nag bu jàngul daal dinay tàmbali ñàkk ab yar ndax yaram moom ci jàng lañ ko gën a xam su fekkee ne doom ji yar nga ko même ki ko yar xamul eh, yarum làmbatu lay doon te boobaa du nekk lu jub ñaare léeg-léeg ci am rek la koy yare yarug njaboot way jur la war te yàlla waxu ko mu yar yaram kese ndax yàlla bind aadama ci màdd ak roox matière muy yàpp wi ak yaram wi ak deret yeeg yax yi loolu matière am na way bari nag màcc lañu yar waaye yàlla ko yar roo roo du màggee ci dara lu dul jaamu yàlla ak xañtu yàlla ak xam lu jëm ci yàlla ak leeru xam-xam kon su ko manqué manqué na lu rëy tuta puukare ndey ak baay walla mu puukare askan loo mën a damoo loo lu mu rëy rëy rëy way jur joxul doom lu gën mu yar ko su damu mu mën a damu imam ali mu muy damu ñëw ci moom di wax ni sama maam yee sama baay yax bu rëy bi ma bokk mu ne ko atafxar bi ittisaalika min aliyin wa aslul bawli timaa'ul xarraaxu wa laysa bi naafiin nasabin zakkiyin yuddisi yuddinisuwaa sanaa'iuka alxubbaaxu aw tuddinisuwaa sanaa'iuka alxubbaaxu mu ne ko yow da ngay damu ci ay way ay baay ay yaay ay maam te xanaa xamoo mbéer mbéer muy tuur ndox lanuy tuur mbéer mooma ndox mooma cosaanam lu baax a baax la waaye xoolal fa mujj amul njëriñ ngay bàkkoo mu ne ko amul njëriñ ngay bàkkoo eh, askan wu sell ak askan yàq bu rëy fekk yaa ngi jëf sa jëf yu ñaaw yooyu di yàq loolee nga xam ne moom ngay damu sa eh, jëf lu rëy rëy rëy te àndul ak xam-xam àndul akub yar ñàkk nga moo tax oustaz Maodo bi ñëw na ci temps bi lii mooy daara yi daa ji dëgg-dëgg lii objectif bi mooy ñu bañ di ñëw di siyaare téeg yi rek siyaare taxut mu jóg waaye xam-xam moo fi war di balle xam-xam moo fi war di ñore ñu dem ci kër gi di ko jariñoo te war na noo bàyyi xel ñun ñi dëkk Touba ni dëkk bii dafa ñu donte la ñun ñëpp ko xam waaye bàyyiwuñ ko xel dëkk bii dafa doon dëkk boo xam ne exception la même tubaab bi da koo nangu ndax lu muy def danaa spécial police spéciale brigade spéciale hôpital spécial waaye masaahir yooyu nga xam ne mooy feeñ képp-képp tubaab bi nga xam ne jàngul diine xamul diine mën naa am sax xamul liggéeyub siñ bi waaye yàlla indi na ko ci wax yu ci nun ko waxee ci lisaanul xaalam mën muñ ba xam dëgg-dëgg tuuba ak njariñ loolu yàlla def dëxëñ ko ci xolam mu mun ko tukkoo muñ mu génne loola di ko tuddee spécial kon ñun ndax ñun waruñoo nekk ay niti spécial ko question bu mag la war noo mën a poser suñu bopp ndax ñun waruñoo nekk niti spécial oustaz wax na point bu am solo ma tënk point bu am solo bu ma ñor ndax ñun ñiy jàng ak jàngale point boobu moo nu gën a ñor wala bokk bokku na ci li nu gën a ñor mooy dañu war a seet lu ci nekk ñu organiser ko ba ci eh, eh, yëngal yaram wi ñun de Cheikh Momadou Mourtala micro lay waxee maa ngi wax internet bi yëpp dégg na nu ñi doon jàngandoo ñun xam nañ ko Cheikh Mourtala may na nu 300 ba tàyyi ñu dawal ñu daw dem ci bitigu naïf bee ca Mbàkke jënd fa trois 300 indi ko Mbàkke eh, indi ko ndaam di di di di football xam nga daa am loo xam ne tegtal na tegtal xel da koo nanguwul dalilaax lii nanguwul loolu nga ni bal dafa xaraam ñun la lu tax mu xaraam nga ni Ousseynou lan daggan bopp bii muy tiire mu di ko tiire waaye sëñ bi loolu du xam-xam bal bopp bopp boo ko defee bal boo tiire doo tiire wat loolu xel nangu ko bal bu bopp bi gën a niiw bopp bi gën a néew scientifique yi nee na bu bu bu waddee dina mat quinze kilos bu xësee di wat dee dee bu ko defee nga xam ne mujj na doon suuf quinze kilos dina ko mat xel nanguwul loolu scientifique yi nee na bopp bu daanoo te doy na misaal ci xale bu xale bu faatu lu mu woyof woyof woyof boo ko att boo boo ko attanee mbër nga ñu ci bari ñaari nit a ko yenu ndax dafa delluwaat ci suuf day delluwaat ci ci suuf nit suuf la su suufaatoo day diggën a diis kon indil beneen tegtal boo ma indilee ni ma jaxasoo góor ak jigéen lañ ci bañ waxtu julli yi nuy faat yooyu d'accord waaye loolu mën nañ ko organiser bàyyi xele yi tuuti xaw leen jox tuuti raaxa tuuti jox ubbil leen bunt tuuti parce que suñ deful lii def lee ku deful bu gudd def bu gàtt rek bu bi mbaa bu bi moo tax kon nan fexe yàlla dimbali nu ñu xaw ko organiser tuuti bu dee ci njàngum nasaraan mii woon ma xoon naa ko ci rajo war a fa jiri mbàkke gee laa ko wax keroog ñu ne mu boo génne ñu rey la ma ne nan ma faat buñ ma faatee ma dem na ndax shahid la français bunut bu bonoon sëñ tubaa du fab ay nit ci biir këram moo ko fabal boppam joxe ndig ñu fab eh, eh, école bee di masorong sorong ca njaareem ñu tabax ko ca wetu kër ga mu yëkkati ay nit dugal foofu ñu koy traduire traduction yi ñu ko doon def sëñ bas coro sëñ mbokki coro eh, sëñ bàll coro ñooñe sëñ bee leen dugalal boppam kon sëñ bi lim bañ mooy jikko ji nanu fexe ba jikko ji man nanoo fexe ba soppi école Sénégal li ñu koy soppee mooy lan ñu dikk ubbi ko fii di ko jàngale di jàngale sunu diine gune koo xam ne ma ngay jàng école am na gune yu école man am naa gune yoo xam ne ñu mbaa xëy jàng yi bu ñu xëyee ñu ngi ci jumaa ji di jàng gis loolu leen fëgg ci diine ñu xam ko boo ko préparé day nekk ngan ngànnaayul sëriñ Tuubaa loo xam ni du du sëriñ Tuubaa daa doonul koo xam ni maanaam wolof kese ko moom laa kese man gis naa ci Amérique ci euh, euh, kii Atlanta benn tubaab bu nu koy wax ñun nee na yéen murit fu ngeen toog fu ne wolof rek ngeen di wax te sëñ Tuubaa wolof yi moomuñu ko tey war na noo jàng anglais wala ñu jàng france walla ñu jàng lépp waaye ñu té téye suñ diine col gi sax ñu soppi ko ba yeneen écoles yi soppeeku di sol colu murit ñu soppi école Sénégal définitivement waaye bu ne baaxut te duñ fi teg dara bu baaxut kay da ngay teg leneen waaye kon oustaz Maodo bi daal gudd na yaatu na tënk nga ko jariñu nan ci man de wallaahi jariñu naa ci bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd lool te wér lool te xam-xam bi yàgg lool te set wicc incha allah yàlla yokk xel euh, yi xalaat yi ñu ngi jéglu ñëpp di balu àq ñëpp euh, wa axira daawana alhamdulilahi rabbil alamin waaleykum salaam jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi sant bu baax a baax di profité de sant ki doon def conférence bi muy sëñ Fall Boussa Assane di ki ko doon modérer góor gi kaa bokk ci ñu taxaw liggéey bi fii am naa bala ñoo euh, daaneel kàddu gi rek day jox suñu seex naa Bassirou Diakhaté bi nekk secrétaire ACIS mu am kàddu yum jàllale ko kon suñu seex Bassirou Diakhaté bisimilah. waaleykum salaam. salaamaaleykum wa wa barakaatu. rabbi israh li wa yassir li amri. wax de wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli Cheikh Bassirou Diakhaté secrétaire général association des commerçants et industriels du Sénégal section Touba di eh, nuyu euh, Serigne Fallou Bousso ci waxtaan wi di ko ndokkeel mu nekk waxtaan wu am solo thème bu am am solo boo xam ne indi na ci ay euh, enseignement yu baree baree bari di nuyu au passage euh, le modérateur oustaz ak Euh, oustaz bi fi jóge léegi euh, bëggoon a indi benn contribution bu ndaw ci thème bi xam naa ne temps bi xat na euh, waaye man li ma gën a interpellé mooy côté occupation manque d'occupation gi mu doon wax maanaam somage bi ak côté formation bi ndax boo xoolee Touba ni mu bindoo dafay màgg-màgginu gaaw woo xam ne dañuy wax ne léegi mooy deuxième agglomération wu Sénégal maanaam mooy dëkk bi gën a bari ay nit ginnaaw capital bi loolu nag forcément dana am influence boo xam ne day jóge ci biti di ñëw ci moom ndax dañuy wax rendez-vous de donner et de recevoir jamono ji ñu toll nag ak mondialisation bi ni mu tëddee kenn mënta bañ dara jóge ci biti ñëw ci yow comme ni ngay jële yow di joxe euh, loolu la Samuel Huntington doon wax naan le choc des civilisations ñun nag li ñu am damaa jàpp ne valoriser nañ ko mais dañ koo dañ ko xaw a kii suñ biir tënk ko lool suñ biir kon loolu yaakaar naa ne war nañ ci mën a gën a liggéey Touba tamit ci wàllu commerce kon ñëpp xam nañ ne information depuis bi àddina nekkee àddina ba léegi échange day ànd ak ci commerce lay jaar maanaam diine diine dugg na ci dëkk yu bari te ci commerce la jaare Touba bokk ci euh, ëpp commercial yi nga xam ne maanaam dëkk yi nga xam ne commerce dafa am doole trop nga fi gis nationalité bu nekk jamono ji ñuy waxee nii chinois yaa ngi fii ci marché occasion indien yi ñëpp a ngi fi bu ñëwee dañuy indaale kon loolu yaakaar naa ne ñu war koo mën a nag gën a préparer ba nga xam ne ñoom bu ndikkee seen la ñuy indi ñun ñu bañ ñoo contaminé waaye ñun par contre ñu contaminé leen maanaam ñu wàll leen ba ñu yóbbaale ñu ñun loolu nekk défi boo xam ne waaye nag su boobaa day fekk ñun ñun ñu pare ci ñun ndaw ñi maanaam ñu def ci ñun loo xam ne ginnaaw bi ñu jaaree ci daara ji loolu tamit jàpp naa ne formation bi dafa am benn rupture man ni ma ko gisee système éducatif Touba am na ay rupture yoo xam ne mi ngi ci biir maanaam dafa aadamul euh, insidiam daal ci diggante ginnaaw bi nga génnee ci daara ji ak ni ngay intégrer école bi loolu c'est pas bien organisé ndax da ngay gis ne ki génn ci daara ji mokkal alquran pour mu dugg ci école arabe bi wala mu dugg ci école française bi euh, ci passefu boppam ak ci bëggu boppam rek ci lay mën a fexe ba jàll waaye amul benn si système bu buñ établir boo xam ne day ñëw automatiquement jaar ci jaar loolu jeunes yi am nañ ci xale yi am nañ ci jafe-jafe loolu yaakaar naa war nañ ko tëggaat tëggin woo xam ne xale bi waxuma la dara waaye jamono euh, euh, temps bi muy def ci daara ji rek dañ koy dañ koy dañ koy calibrer dañ naan maximum cinq à 6 ans bu paree euh, automatiquement ñun daal koy orienté mu dugg école française wala école arabe ça dépend code de formation ginnaaw bu jàngee école française wala école arabe ba pare tamit Euh, insertion insertion sociale am dafay jafe ndax amul ay place liggéeyukaay yu ñu programme pour loolu li fi nekk yëpp daanaka ay moomeeli nit lañ te doxin wa des na ndax li fi nekk yëpp dafa informel surtout commerce bi moo fi nekk te dafa informel loolu it jàpp nañ ne war nañ cee liggéeyaat ba formaliser ko à ce ba nga xam ne li nga xam ne si Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy liggéey muy muy université bi atalallahu baqaa bu yàlla dogalee ba mu noppi ña fay ci formation bi ñu mën leen a ñu mën leen a Euh, euh, ñu mën leen ñu mën a def seen insertion fii nii Touba waaye bu lii bu wéyee lii ne ci marché bi ak euh, système bii fi nekk loolu yaakaar naa ne mënta a intégré kenn stage sax kenn mënu ko fi def loolu nekk ay liggéey yoo xam ne jàpp nañ ne war nañ cee gën a xalaataat tey Touba dafa dafa am benn enjeu bu mu am boo xam ne ci wàllu ci wàllu commerce international yaakaar naa ne kilifa yi war nañ ci gën a bàyyiwaat xel su may waxee kilifa yi na maa ngi bëgg wax autorité administrative yi ñu gën a ay ay marché yu gën a méngoo ak jamono waaye gën a formaliser liggéey bi ba nga xam ne xëy na euh, li fiy génne ci formation yëpp danañ mën a danañ mën a danañ mën mën a euh, li fiy nekk ci ay jeunes yëpp danañ leen mën a employé it damay par parfois damay nuróole Touba ak dëkk bu mel ne Dubaï boo dee xool euh, amul benn richesse Dubaï te boo dee xool tey jii mooy le marché mondial Touba tamit dara ñorewu fi waaye boo dee xool lépp a ngi fi loolu kon yaakaar naa li des rek moo ñu fexe ba système bi performant ba mën a kii waaye tamit amaana beneen aspect mooy aspect transformation wu ñi nga xam ne dañoo jóge ci àll ba ñëw Touba bàyyi lañ xamoon Touba amul suuf soo bàyyee naka lañ fexe ba transformer seen ay capacité ban mën a defaat leneen euh, capacité leen ban mën a nekk ci yeneen métier ndax bay moom mënees su ko defee Touba te ñoom loolu la nga xamoon wala bu bal dañuy ñëw di toog loolu moo indi phénomène charrette yi charrette yi bu ñu waxee ne plus de 20 000 charrette mbaam ñu ngi ci dëkk bi 18000 sareet fas loolu boo ko xoolee kenn xamul nu tool te ay jeunes dong ñoo ci nekk te loolu yaakaar naa ne li euh, oustaz doon wax sànq bombe à retardement la tôt ou tard dafay exploser kon yaakaar naa teel cee jug teel koo désamorcer ba bombe bi bu exploser du am effet loolu yaakaar naa ne jot na sax kon yaakaar naa li ñu fi war a wax <laughs> bari na maa ngi jégalu xam naa maa ngi guddal beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Basirou ci intervention bu am solo boobu. xam naa dañuy profité di leen fàttali thème bi ñu war a waxtaan suba rek mu nekk le parranger yi kon carte ban enseignement pédagogique à l'endroit des apprenants élèves étudiants et enseignants ki ko war a amal nag mu nekk oustaz imam Assane Diouf kon bu ko defee ngeen mën ko bàyyi xel suba ak jàmm allah kon jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm ya